aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti nit yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw fas yéene ànd ak yéen ci seen émission diine ak jamono diine ak jamono ñëwaatee ak sujet d'actualité déparé nag ci ab livre téere boo xamante ne suñu naataango bi di Mame Birame Wathie moo ko bind euh, mu ngi tudd nag euh, affaire euh, Karim Wade Macky Sall la double victimisation gagnante de Maître Wade li tax nag ñuy déparé livre bi tam mooy li ci nekk yëpp mooy li nekk ci langue politique bi te mooy itam li fi nekkoon démb mu nekk fi tey mel ni dafay war a nekkaat itam ëllëg am na ci wure am na ci wor am na weerante am na weerante loolu yëpp nekk loo xamante ne tey mos jóge ci langue politique waaye la ci bees moom da ciy def gëstu goo xamante ne travail scientifique la daal di ñu ko tegalaat ba nga xam ne li ñu ci naroon rëcc yëpp def na ko benn say ba teg ko ci suñu kanam moo tax tey itam say boobu lañ fas yéene nag tasaare xoolaat ko jàngat ak ay politique jàngat ko itam ak ñëpp ñoo xamante ne dañoo ànd ci wàllu seetu ak saytu lépp luy làngu politique ci biir réew mi tey ji itam kon ñu ngi ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Mame biram wàcc moom moo bind téere bi maam Birame maa ngi lay ngi lay fay bu baax maa ngi fi ak président directeur général Walfadjri mooy préfacier bi Sidy Lamine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi fi ak Moussa Faltier mooy secrétaire général appel de Boumougacé di coordonnateur national Macky 2012 Moussa Faltier maa ngi lay nuyu. Ousmane fay. maa ngi ci ak vice président conseil départemental bu Thiès nekk itam nag secrétaire euh, national à la vie du parti Rewmi. Yankhoba Diattara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane. kon maa ngi rafetlu bu baax a baax seen teewaay fii ci plateau bi. jërëjëf aju tey ci li ñu waxtaanee muy wàllu politique waaye itam jëm ci livre boobu. comme prétexte bi nag ak li ñu tey mooy livre bi ñu déparé ci Mame Birame rek nga xamante ni kon mel na ni bi ma jotee gis ci ay page ci biir livre bi euh, Karim Wade nekk na ci jamono yooyu <clears throat> une bonne matière première ci wàllu politique waaye defa mel ni itam da ko nar a di nekk bu moo tax euh, bokk na ci li la pousse yaakaar na nga gëstu ci mbir waaw jërëjëf euh, sëñ Ousmane gannaaw bu ma nuyoo téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp euh, jaajëfal ci invitation bi pour tontu ci sa laaj bi damay wax ne pour livre bi pratiquement tout est parti bu ñu condamné Karim Wade ba pare donc je me am na benn article bu ma bindoon je l'avais appelé yaakaar naa ne sax jusqu'à présent mu ngi ci internet bi les fay qui bi le verdict de la CREI donc euh, dama defoon un ensemble de constats tout au long du procès pour expliquer pourquoi waa PDS depuis que yi commencé procédure bi ànduñu ci procès Karim Wade bi donc bu ma defee analyse boobu j'ai vu que am na bokk bokk bokk bokk de couacs yu nga xamante ni am nañ non seulement ci biir procès bi mais CREI bi nga xamante ni moom moo waroon am pour juger Karim Wade tamit daf doon poser problème Euh, bu ma defee loolu ma toog ba ci yàgg donc je j'ai vu que maître Abdoulaye Wade bi nga xamante ni depuis ba ñu ko daanelee toog na Paris presque pendant un an yëngatuwul ba ñu jàpp Karim Wade ba mu def ci kaso bi ay quatre mois yooyu ci le revenir au Sénégal euh, am nu mu turati benn taxawaay bu mu taxawoon bu nga xamante ni yëngaloon na presque réew mi donc ñu condamné Karim Wade Abdoulaye Wade jékki-jékki na tekk kenn déggu ko ci dara donc mu expliquer ne benn euh, nu mu turati ndigal la la jotee bu jógee Touba moo ko tax a bañ a def dara donc ma ma ma continuer di di di di def analyse yooyu euh, ma boole ci tamit euh, nu mu turati que 48 heures avant CREI di nu mu turati arrêté verdict bi que Karim Wade def nañ ko candidat parti démocratique sénégalais te man ci samay enquête jàpp naa ne am na beaucoup de leaders politiques yu nekk PDS yu nga xamante ni amoon nañ des ambitions pour gérer le parti démocratique sénégalais mais ñu si bëri Maître Wade leen a gëmloo woon ne euh, bu ñu defee Karim Wade candidat du PDS CREI du am sañ-sañu condamné ko ce qui s'est révélé faux parce que quelque part que ñu def candidat Karim ak ñu bañ ko def candidat loolu ça n'a absolument rien à voir avec le verdict de la CREI léegi ma ne donc tous ces éléments là réunis est-ce que quelque part mënuñu analyser xalaat que ne Abdoulaye Wade maître euh, ak euh, le président Macky Sall est-ce que vraiment euh, nu mu tuddati féewaloo nañu est-ce que réellement féewaloo nañu parce que boo xoolee processus bi je rappelle que CREI boobu noonu ñu ngi ko créé en juillet 81. de juillet 81 ba le 10 mai 2012 deux fois le CREI entré en action deux fois le premier ministre Idrissa Seck amoon na fi de difficultés ba ñu atte ko te il n'a jamais été question de CREI. Euh, haute cour de justice la ñu taxawaloon mu daal di koy atte avant boobu am na benn nu mu tuddati euh, waa DIC. convoqué nañ ko ba signifié ko garde à vue te il n'a jamais été question de CREI mhm. le président Macky Sall lui-même en janvier 2009 convoqué nañ ko au commissariat central pour euh, mu expliquer wu sur euh, blanchiment d'argent mhm. il n'a jamais été question de CREI donc moom bu mu ñëwee ci la jël décret le 10 mai 2012 signé que ne CREI dañ koy dundalaat mhm. nommer le les les les procureurs et autres ma ne donc le président Macky Sall qui utilise la CREI bi nga xamante nii man jàpp naa ne véritablement instrument la pour wane ne nit ki ñu ngi koy néewal doole. parce que boo xoolee euh, le président Abdou Diouf mu mu ngi euh, nekk nu mu mu ngi ko taxawal en juillet deux mille euh, quatre-vingt-un mm-hmm. Mm-hmm. juste quelque temps juste bu ko bu mu jëlee nguur gi ci Senghor mm-hmm. donc moom période boobu noonu amoon na peut-être euh, besoin pour créer une cour comme la CREI mhm. parce que quelque part ñu bëri ñu ko waroon nekk ay ténor aguerris de la politique neexu leen woon trop bu le président euh, Abdou Diouf euh, Senghor jox ko nguur gi donc xottal leen ci très bien donc bu mu créé CREI bi noonu mhm. amoon na ñooñu noonu woon na leen de côté mhm. donc ma ne le président Macky Sall bu xamee bu amee tous ces éléments là créé CREI euh, euh indiqué yi ça ne doit pas être le fruit du hasard mhm. donc si laa def euh, mais enquêtes mhm. je suis remonté ba 2007 année bi nga xamante ni Macky Sall euh, nekk na candidat nu mu tudd directeur de campagne yu président Abdoulaye Wade mhm. gagné élection yi maître Wade fexe ba ba Macky Sall nekk président assemblée nationale parce que je rappelle élection yi noonu amuloon benn candidat mu nga xamante ni opposé woon na à Macky Sall il avait 143 voix sur 46 mu woon la ne unanimité bi ça ne faisait pas l'objet de donc ñu jóge ci loolu en tant que président assemblée nationale ñu ne moom ak Karim Wade am nañu problème ba moom ak Ablaye Wade séparé wu nañu donc ma topp coow loolu remonté ba temps wu nu mu tuddati euh, Idriss Seck en 2004 bu bu mu commencé ses déboires avec euh, maître Abdoulaye Wade j'ai compris que quelque part Idriss Seck moom moo nekkoon la phase test de maître Wade pourquoi parce que en, en entre 2005 et 2007 bu ñuy def élection présidentielle boobu noonu euh, toogoon nañ période période boo xamante ni Sénégal beaucoup de choses ne marchaient plus. Mmh. donc il fallait quelque part un opposant boo xamante mën na cristalliser tous ces mécontentements là ñi nga xamante ni meroon nañu te waruñoo dem ci Moustapha Niass waruñoo dem ci Ousmane Tanor Dieng donc ñu jëm ci Idriss Seck donc c'est exactement peut-être euh, c'est exactement ce qui s'est passé en ak euh, mhm. Macky ak Imam Biram Sidy Lamine yow yaa préface livre bi ci li Imam Biram jàngat ni est-ce que bokk na ci travail scientifique yoo xamante ne xel mën na kaa nangu ak ci doxalin politique ci sa expérience ak li nga dund ci livre effectivement Maam Biram bi mu ñëwee woon ma lim jot a bind mu nekk di ay këyit yoo xam ne booleegum ko pour mu nekk livre dama ko ne man de lii laa jàppoon waaye nag loolu intuition la yëg-yëg la sama biir ñaareel bi itam boole naa kook déduction boole naa koog la maître Wade waxoon ne euh, Bongo gënu muus George Bush gënu muus ma jàppe woon ca ne mooy su fekkee dama dee ci nguur nañ defoon ak Bongo dana am ñu jógee bitim réew comme niñ ko gisee lettre du continent ñëwaat wane ne yëf yi ñu bëri ñu nekkoon bitim réew àddu ci kon luñ yàgg préparé la kon loola mooy bu fekkoon waat bi dafa desoon génnoon àddina fekk mi ci ngóor bu ma génnee àddina bu ma génnul àddina génn ngóor bu boobaa dana am ko dox sama diggante ak sama doom entre Wade fils ak Wade père comme entre Bush fils ak euh, Bush père ma tuddeewoon ko Clinton Sall ma ne ko man déduction yooyu ak yu bëri yu ma boole indiloon na ma lii yow nag gannaaw journaliste nga def nga investigation kon indi nga troisième élément boo xam ne moom la ñaar yu njëkk yi soxla yëg naa ko walla foog naa ko dafa soxla gëstu naa ko ba lii laa ca génne loo xam ne ku koy jàng ci wàllu xam-xam da ne boolante nañ ko kon ci laa ko ne kon man d'accord naa pour def euh, préface bi puisque ànd na ak ñaari éléments yooyu ñaari éléments yooyu man dama koy delluwaat ci histoire moom dafa commencé ci léegi man euh, loi boobu bi nga koy tàmbali ñi ngi ci njëkk a jàpp man ak ñoom ñoo bokkoo nekk kaso muy ñoom euh, bekkaay Jara ak ñoom euh, Bekaay Seen ak yooyu ñoo bokkoon nekk kaso may waxtaan ak ñoom nga xam ne bañ bañ koy yëkkatee rek jàppuñ ci benn politique waaye ay médecin ay nangam euh, imputation budgétaire ca kaw rek lañ koy yemale rek waaye wàccuñ te booba nañ doon joxoñ comme ni ko maam Biram waxee moo doon le baron ak les baronnies barons yi moo doon ñoom Amadou sise Dia baroné yi moo doon ñoom Moustapha Niass ñi nga xam ne ñoo maaseek Abdou Diouf ñooñ la doon joxoñ ku su ngeen yëngatoo <coughs> yat waa ngi fi muy la Machiavel jàngale woon ci bâton ak carte kon dama ko njëkk dund foofa gis ko gis jeu boobu topp ko daan ko topp ak ab Ablaye Wade mu may toog di ma laaj ne ma est-ce que xam nga lan lañ jublu ci enrichissement illicite ma koy wax man li ma ci jàpp mu may wax li mu ci jàpp ñi ànd man ak moom ci jamono jooju ma gis Ablaye Wade ci boppam euh, bi nga xamee ne euh, taxawal na parteem te fekk ci PS la jiitoon fekk ci euh, parti Cheikh Anta la jiitoon BMS ak yeneen ba ñëw nag ak aventure bu gudd dem Côte d'Ivoire ak Cheikh Fall histoire yooyu yëpp maa ngi koy nettali sama benn sama livre bu war a génn fan yi pour ñu gisaat l'histoire politique de ce yi ak déggoo yi ak yu bëri fu muy jógee bi nga xamee ne Ablaye Wade ñëw na Mogadiscio bi ñu toogee ba def partie de contribution bi nga xam comme ni mu ko tuddee woon au début 81 keroog bañ koy ba muy yëg ni du moom Abdou Diouf man ak moom ñoo toog ci biroom fii ci Rue Carnot mu jàkkaarloog Centenaire fekk maa ngi jógee kaso ñëw foofu war a récupérer oto boo xam ne moom laa amee woon mu nekk ci loxoom Moustapha frère am war amee woon ko. bi ma ñëwee dafa toog ba mu yàgg rek mu dugg ci bureau bi ci biir fekk sone na ñëwaat ne ma Abdou Diouf lañ nar a fal bokkoon na ci lim jàmbat mooy la ñu jàppoon moom ak Senghor mooy waruñoo sauter génération te gannaaw Ablaye Wade moo magee Abdou Diouf juróom-ñeenti at la ba 35 kon moom moo war a njëkk falu ba jeexal Abdou Diouf door a ñëw et que na génération kon gisee ci ne kon ndekkee yëf yi am na bailleur am na ñu ñuy war a toog am na fu ñu koy déggoo contrairement ak li li ci mbedd mi foog ne ku nekk mun ngaa yëkkati sa loxo rek ne man mun naa am ay nit mun naa gañe mun naa def nangam ma jàpp ne bii yoon kon waruñoo sotti génération kon ab Ablaye Wade la mu doon reproche Senghor waru cee daanu ñaari génération nag ñoo am ci siñ kanam y les événements de l'indépendance 60 61 62 en tout cas génération boobu pour ñu wax ne jógee nañ nag ci 48 yi ñoom Lamine Guèye jóge nañ ci ba ba 35 ki pour yegg si nag ci l'après indépendance ma jàpp ne suñ ko tëbee ñëw ci 68 taar yi te mooy euh, mooy Karim 1er euh, septembre 68 bu boobaa danañ sauté génération moo tax nag entre Idrissa ak euh, ki doon naa posé question njëkkoon naa ko def ci benn livre muy analyser ko muy. un président euh, Ablaye Wade un président par défaut ba nee xëy na mu nekk Idrissa xëy na mu nekk nangam waaye nag ci Karim lañ jëm waxoon ko ci 2002 ku mel ni dans sa ko bi mu taseeg man Touba mu ne ma bi ma liiree sa kii bi dama ne woon euh, yooy wax nii rek la mais bi ma demee ba ci biir gis naa ne lu lu lu dëgër la donc partant de beaucoup délément yu mel noonu topp politique bi gis ni muy demee ka ñëw xam naa ne d'abord démocratie n'est pas l'anarchie lu ñu organisé la xam naa ne li ñeen ñi di tuddee complot ñii di ko tuddee deal ñeneen mun koo tuddee négociation en tout cas baara yëgoo dana ci am kon jàppoon naa ne lii ma ñëw nag boole ci éléments yi nga xam ne maam Birame waxoon na ko lu tax mu nekk Karim moom kenn moo tax sama combat depuis le début lim nekkoon mm-hmm. mooy bu ñu yem ci kenn bu mu nekk loo xam ne day ñëw di singali benn nit bu ñu boolee diggante justice ak politique bu boobaa dañ affaiblir justice donc man ay principe laa njëkkoon a jël di ko xeexal bi mu ñëwee nag indi livre bi mu ànd ak man ci koo xam ne nag léegi investigation man en dehors de lii may wax yépp ay déduction la conviction yu bëree bëri yoo xam ne mun nga ko bañ a jàpp sur le plan scientifique kon gis naa sur le plan scientifique quelqu'un boo xam ne def na investigation kon man jàpp naa depuis le début que du ma wax complot la puisque complot dafa am euh, le complot permanent te loolu day jur paranoïa waaye damay wax la théorie du complot hmm. la théorie du complot nag c'est pour dénoncer le complot pour qu'il n'y ait jamais un complot puisque c'est très sérieux et puis euh, le peuple est mûr et dañ ko war a jël en considération nañ ci dellu soit léegi kon Moussa Valtier bu fekkoonte ne ci déggoo nañ ci waxtaan bu mel nii te comme ni ko si di rappelé ci histoire du Goulet est-ce que dafa mën a nekk na yéen yéen a ngi bokk ci Macky 2012 xeexoon ngeen fu nekk ak waxtu bu ne ndax mun nañ jàpp ne léeg-léeg itam ci politique nit xeex xeex boo xamante ne du xeexam oui des fois dinañu xeex euh, xeex boo xam ne du suñ xeex mm-hmm. temps du côté de l'opposition que du côté du pouvoir mais toujours est-il que euh, su xeex bi juste rek c'est bon même du nekkul sa xeex parce que solidarité la en tout cas si di am na lu mu leeral bu baax si li maam Biram wax surtout si CREI yi parce que CREI yi euh, suñ ko expliquer woon correctement sénégalais yi de même que la euh, l'avis du groupe de travail suñ ko leeraloon correctement ñu mel ni ñii bañ a doon avocats yi les avocats de Karim nga xam ne il faut tout pour sortir Karim de prison di raconter du n'importe quoi suñu leeraloon CREI yi li mu doon leeral li avis du groupe de travail doon kon cow li du bëri parce que Sidi a rectifié euh, effectivement CREI yi créé wuñ ko pour les barons kooku dañ koy wax xam nga Sénégal dinaa koy dénoncer souvent du kenn xasee wax dara rek au lieu ñu seet ndax li mu wax jub na am jubut dañ koy répéter rek dañuy civisme la ñuy def on dit que oui Abdou Diouf da ko créé woon pour combattre les barons yi nga xam ne accepté woon non non non Abdou Diouf mi ngi attaqué la corruption bi mu nekkee premier ministre ñim njëkk a jàpp soit magistrat la woon soit euh, juriste la woon mais euh, bi mu ko yóbboo si magistrat magistrat dañ koo delloo dossier bi ne ko gisul dara on n'a pas de preuve parce que enrichissement la ko attaqué woon ah mu bindi leen lettre moom Abdou Diouf une lettre salée comme ni mu koy waxee ne leen qu'est-ce que vous faites de la preuve par présomption gars yi ne ko ñun daal gisuñu daal boobu y avait pas une loi sur l'enrichissement illicite Abdou Diouf reculé donc ba doon président nag créé loi bi 81 53 créé cour bi 81 54 pour s'atteler nag à la lutte contre la corruption et non contre les barons et eh, yi jot na liggéey si di wax na ko euh, ñin si njëkk a jàpp ñett lan woon ñaar ñu acquitté leen kenn ki le directeur de banque je ne cite pas son nom nañ ko trois ans amaan ko vingt millions. ci ay jamono yooyu. ci jamono yooyu en mm-hmm. deux mille en deux en quatre vingt trois. Mm-hmm. quatre vingt deux ou quatre vingt trois. si lañ ko mm-hmm. deux ou trois voilà parce que si lañ euh, njëkk engagé. Euh, xeex bi bi depuis lors nag. këré yi toog mais këré yi day toog parce que amut amul liggéey ku amul liggéey doo liggéey. mais ça veut wala joxuñ ko liggéey. ah wala joxuñ ko liggéey. donc waaw joxuñ ko liggéey aussi mais taxul mu disparaitre une loi tant que abrogé wuñ ko mu nga fa su amoon cent ans sax mu nga fa ñu ngi wax ne këré yi baaxul yàgg na euh, haute cour de justice mais haute cour de justice moo gën a màgget fuuf këré yi haute cour de justice kañ la gëj liggéey. 1963 avec Mamadou Dia 63 ba bi ñuy attaqué Idrissa Seck mës ta def dara et pourtant neewuñu yàgg na ñu ngi koy dénoncé day wax ne y' a pas de euh, double juridiction double degré de juridiction ci CREI yi mais la la la haute cour de justice et pire que la CREI au moins que la CREI am nga à la fin am nga pour pourvoi en cassation devant le la cour suprême mais haute cour de justice amut hors cours de ces décisions n'ont aucune voie de recours amut ni ni premier niveau ni deuxième niveau. c'est que haute aussi mën na bàyyi nit waaye CREI daa bàyyil kenn kaay wax li nga yor xam nga loolu dafa ah, yombul ba tax nit ñi c'est le charme de la CREI yi loolooy CREI yi loolooy loolu mooy la preuve par présomption euh, un gars qui s'est enrichi mais ah, mënoo am preuve bi Ousmane le corrupteur du ko wax le corrompu du ko wax mais suñu gisee si yow ay signes signes qui montrent que tu t'es enrichi parce que lii nga am méngoowut ak sa sa avoir mais dañ lay laaj rek mais crédit c'est pas grave Ousmane. Hmm. dañu ne la oto bi nga jënd te mu jàll ay millions te mënoo am 10 million si at mi boo ko jëlee mais neel fii laa ko jëlee voilà pourquoi ñu ñu doon Karim Wade 600 e quelques millions. ba wàcc ci 117 millions le charme de la CREI mooy luñ la accuser doo ko mën a justifier rek ñu élagué ko parce que dañuy supposer foofu preuve la par présomption mhm. preuve par signe yow nag duñ la joxee mise en demeure nga justifier loo justifier rek ni defal ko ko ba mu des loo mënta justifier lu boobaa ñu attaqué d' accord nañ ciy dellusiwaat léegi ba Diatara nga xam ne yi kon buñ ko sampee moom bàyyul benn homme politique parce que itam liggéey ak nguur liggéeyu politique dafa ànd parfois ak jóge fii dem fële muy loo xamante ne tey mën nga investir mu jur waaye lam jur doo ko moom du ne mën na la cee fekk te jii bu ñu doon analyser CREI boobu ak ni muy doxee est-ce que mënuñ cee jàpp ne aussi euh, dafa nekk instrument politique ak nganaay boo xamante ne ki féete ci kaw mën na koo jëfandikoo toujours dal ci keneen ki nekk ci kuréel. alhamdulilah merci Ousmane maa ngi lay sant di gërëm ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yi ñu yëpp. mais également di féliciter groupe Walfadjri ci seen ligne mais également ci émission yi ngeen di organiser ku yu mel ni bii nga xam ni dañ naan diine ak jamono mais li muy charme mooy les faits de société yi nga xam ni moom la ñuy dund au quotidien lay teg ci table te loolu dañ lañ ci féliciter di këram nag suñu mag suñu nijaay si Lamine ci taxawaayam ci réew mi d'une manière générale je pense la ligne de Walfadjri est une ligne à encourager mais du ñu bett ndax moom parcours am daanu séduit ndax ku xam fi mu jaar sooy su lay wax d'ailleurs ñun les jeunes on a besoin de ça je pense qu'on a besoin de modèle yoo xam dañu am jaar-jaar pour que ñun ñu bañ a xaw a naa naagu xam ne ay ndaw lañ dañu war a jàng ne ci yoon et yu mel ni moom ak sama nijaay donc euh, Moustapha Fall mais ci bi rek moo ko xaw a yàq. nu ngoog si da koy bañ. donc ñoom c'est des <laughs> vraiment de compativité donc de parcours donc ñu leen di nuyu di leen siyaara de même que nag suñu naataango bi di nekk. Euh, Mame Birame Wathie Mame Birame jeune comme ñun. Mm-hmm. mais également mu def loo xam ni Sénégal dañ ci war a gën a jublu mooy bind. Mm-hmm. comme on dit les écrits restent. Mm-hmm. et c'est pour l'éternité mbind ñu bëri dañuy am ay parcours wala dañu am ay histoire yi ñu dund mais malheureusement ne prennent par le temps d'écrire or pour la postérité c'est important je pense que dañ koy féliciter ci loolu da ko ci encourager mais également mu bind ci thème boo xam ni c'est un thème qui intéresse tous les Sénégalais mais peut-être qu'ils n'ont pas toujours l'occasion peut-être d'en débattre ou bien d'avoir donc des des des ouvrages avec des des des, des, des avec euh, des, des, des, enquêtes approfondies. Mmh. Mais souvent, peut-être nous, on peut également, euh, ça fait partie des failles de la presse. Nous avons des journaux d'investigation. Comme nous avons malheureusement fait de côté de def ay investigation dem ba ci au fond des choses daal di jël son temps et tout je pense loolu aussi daf ñu xaw manqué mais je pense que li mu initié nii mm, aujourd'hui sur un thème d'actualité ça mérite d'être encouragé Euh, mais aussi mu nekk thème boo xam ni ça intéresse tout le monde tous les Sénégalais mais surtout aussi nous les hommes politiques ndax mbiru CREI yi je pense que ñëpp la war a intéressé ndax naturellement sur le principe de combattre la la corruption naturellement ak l'enrichissement illicite tous les Sénégalais nag dañ ci d'accord dañ ko bëgg ndax Sénégalais yi naturellement dañu soxla njiit yoo xam ne ay modèles lañu ay références lañu te ñun la dénk. seen i seen am-am kon xaar nañ ci ñun un modèle un, exemple un model de droiture et de probité nga xam ni li nga xam ne dénk nañ ni ko xam nañ ni kat sayt nañ ko bu baax ba tax na kon su fekkente ni y a des manquements ci kenn naturellement nit ñi dañuy d'accord que kii dal ci kaw mais nañ ko teg ci yoon CREI malheureusement ni mu doxalee ci affaire Karim ñun sur le principe li ñu ci wax mooy Karim Wade quand même a été poursuivi wala voilà, s'est enrichi c'est dans le cadre de donc d'anciens ministres d'État bu yor nga xam ne ay responsabilités politiques yu bëri ak étatique de ce point de vue là am na ab cour boo xam ne suñ constitution moo ko instauré muy haute cour de justice nga xam ne dañ ni nga xam ne dañ ni exercer ay ay ay responsabilités d'État su fekkente ne am na leen di topp ci exercice boobu dañ leen di topp ci haute cour de justice et dañ ko organiser noo xam ni dafa am euh, commission d'instruction am procureur am am ñuy toppee et tout cela donc ñun côté boobu la xalaat nii su fekkante ne réellement Macky Sall avait pris la décision d'aller jusqu'au bout des choses ci ñi nga xam ni ñëpp au-delà de Karim Wade ñi nga xam ne ñoo ànd nekkoon ci région Abdoulaye ñu am lu ñu leen mën a toppee waroon na mën a jaar par haute cour de justice loolu moo ko doon sécuriser mais également mooy doon sécuriser tous les hommes tous les Sénégalais ndax suñ un bon système juridique euh, day sécuriser les citoyens mais également les investisseurs tey créer bi tax na même investisseurs yi même les Sénégalais sénégalais investisseurs sénégalais ak étrangers tey ils hésitent même à venir au Sénégal du fait de de d'une d'une faiblesse du système judiciaire boo xam ni mën nañu pour ñoom à tout moment rek mun nga perte sa investissement wala mën nañu topp ci dara sans ñu teg ko ci lu leer or mbiru CREI bi aussi dafa am loo xam ni dafa décrédibiliser état bi mooy mënoo jóg topp nit takkal ko ay six cent et quelques milliards tey di wàcc di wàcc bala ngay wax surtout kilifa surtout état nga xam ne moo représenté ñëpp war nga ko teg ci lu leer mm-hmm. nous on avait dit à l'époque d'ailleurs Idrissa wax na ko Macky Sall bala ngay accuser kenn teg ko fu leer waroon nga mun ak sa ay sa organe de contrôle yi nga xam ni Sénégal am na ko ak suñu système suñu police suñu gendarmerie suñu hors corps de contrôle yi mm-hmm. mun na jël soo temps bañ a yàkkamti nag su dee réellement maintenant maam Birame par rapport li muy wax le la complicité Macky Sall Abdoulaye Wade pour créer un nouveau monstre politique qui va suppléer demain pour suivre le le le le projet monarchique de Wade donc de mettre son fils cette complicité là entre Wade et Macky est est ñun de tout temps on l'a dit et d'ailleurs cette complicité date de 2003 ñun xam nañu ni Ablaye Wade Macky Sall ak Karim Wade ñoo doon complot pour liquider Idriss Seck pour préparer Macky Sall pour préparer Karim Wade mais Idriss bi Macky Sall ñëwee seet Idriss sa Thiès bi mu amee problème yeeg Abdoulaye Wade Idriss daf ni ko xam nga lii man bettu mais yow su ba ma la koy wax du gëmoo ma waxoon naa leen ne Abdoulaye Wade amuñu problème mu jële ma fi di ma xeex taqal ma li ma taqal pour say bët yow mais Abdoulaye Wade doomam la doon waajal mais yow su ma la boobu mënoo ko dégg il fallait lii dal la ngay soog a xam donc moo tax da ngay xam ni Wade kenn ku ma sant muy son fils Karim Wade trois la ci commencé liggéey en 2002 maa ngi Idrissa dañu ànd Beyrouth bi ñuy fal Abdou Diouf à la francophonie ñu daje fa ak benn tubaab bu ne xaritu Abdoulaye Wade ci diine bi mu ne ko Idrissa il faut nga def ndànk nga prudent mun nañu dem période boo xam ni palais ba sax doo fa duggati nga xam nga 2002 deux tout deux ans après alternance ak Idrissa ni mu sonn ci Abdoulaye Wade ni mu ko taxawoo ak bi ni ñu. ni mu ànd ni mu àndeek moom. ci parcours ba egsi deux ans après kenn naan la soo moytuwul Idrissa pour moom loolu il faut que Wade perdre la tet loolu soog am mais fekk na commencé nañ ko togg au niveau la famille loolu nag moo dem di dem ba crise bi am mais malheureusement ci Macky Sall un peu la jaar ak Karim taxal li muy taxal Idrissa daq ko déjà comme premier ministre teg Macky Sall Macky Sall defe ni peut-être daf ko teg rek pour mu ñëw liggéeyal ko ñu ànd doo mm-hmm. mais fekk. da koy préparer pour mu nekk paravent pour que doom ji gën a mën a waajal hmm. mu gën a waajal doom ji comme le Sidi Lamine wax ah Abdoulaye di joxe na fay exemple exemple yooyu mu joxoon ci ay bouche ak ay ñoom wane woon na ni hmm. Hmm. son projet monarchique la génnew ko kon li nga xam ni yëpp moo fi jaar muy taxal Idriss Seck jàpp ko tëj ko kaso jàpp taxal Macky sàll sax un moment donné ba mag yi rëcc xam nañ ni kenn la doon waajal mais ci loolu bi Macky ñëwee en 2012 en 2012 pour Abdoulaye c'est une belle occasion aussi ndax xam nga diggante bi aussi y a eu des des des des des des choses parce que en réalité Wade pour mu dem la famille et même le PDS avait des chemins. Mm-hmm. kan moo gën ci PDS pour teg pour remplacer Wade le temps que ñu gën a préparé wu. Mm-hmm. ñenn ñi seet si woon nañu ñun mais ñëpp avait di Idriss Seck biir PDS mais Karim a dit tout sauf Idriss Seck la famille a dit tout sauf Idriss Seck. moo tax ñoom ñu daal di teg seen choix sur Macky Sall ba am na sax ñuy wax ni. Mhm. am na ay jàppale ay taxawu yoo xam ni aw defoon nañ ko à la la paire à l'époque ci pour mu gën a mën a jàppale. Mhm. Euh, Macky Sall pour mu mën a sëppale ndax idi moom na les arrange pas. Mhm. est ce tey loolu nag. mooy woy ba léegi mooy woy ba léegi mais. là où peut être seen deal. xaw a mooy peut être xalaatuñu woon ni su Macky Sall jëlee dina jàpp ab Karim Wade ba tëj ko autant de de temps. ndax ñoom jàppoon nañ ni su Karim jëlee moo leen mooy voie bi gën a yomb moo leen di gën a arrangé ñoom waa PDS pour préparer la transition avant que Karim di malheureusement schéma yooyu ñu tegoon d'ailleurs Abdoulaye soo ko xoolee ci biir campagne bi 2012 bi muy romb Macky Sall naan am na ku ma romb fa la mu yor benn oto bu ndaw ak benn groupe nit ak tuuti nit ak tuuti nit bi baaxul yooyu moom pour vous dire donc yooyu yëpp ay ay ay message la woon mhm. beneen bi bi mu jëlee la bi ñuy def passation bi mu ne waa PDS jàppale leen euh, Macky Sall pour moom Wade l'espoir ci Macky bi mu amoon mooy continuité la Macky Sall ak mm-hmm. Wade en ndax Wade ki sel kenn moo ko intéressé muy doomam mais malheureusement schéma yooyu nag la Macky Sall déjoué mm-hmm. mais aussi Macky n'était pas libre Macky n'était pas libre parce que naturellement sa coalition était là mais également les barons socialistes yi ne ci wetam muy Moustapha Niasse euh, di di Tanor et les assises ne lui facilite pas la mm-hmm. moo tax ñun comme complot bi kii wax euh, wàcc ñun dañ ko dañ ko gëm xam ni mais dafa am lu lu ne dañ dem ba ci biir am lu ci rëcc. am na ay imprévu am ay imprévu ci Wade. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo tax malheureusement peut-être Karim Wade reste autant de temps en prison. mais waroon na mais waroon na mën a génn bu yàgg. jàpp bi sax. mënoon na bañ a dem wala su ko jàppee waru fa woon yàgg nii. d'accord kon euh, Mame Birame kon ci côté boobu tout était prévu de ce prévisible mais comme ni politique ak ni nga ko xamee jàngat ko ci livre bi. Mm-hmm. kon dafa am imprévu yoo xamante ne dañoo dugg ci biir. ba schéma bi wan ni wala ba léegi rek dafa bokkaat ci li nga xamante ne dañ ko tëg par parce que affaire c'est prémédité te am na fu ñu war a jaar waaw tout à fait mais balaa ma tontu damay indi tuuti précision par rapport ak euh, créé bi ak euh, voilà loolu sëñ Moustapha Fall waaw mm-hmm. te parce que tey jii nii moom mel na ni moom kese kese kese mooy continuer di défendre CREI mm-hmm. parce que le président Macky Sall lui-même def na interview euh, iTélé 25 mars 2015 ne CREI dañ ko war a xoola Aminata madame Aminata Touré bi nga xamante ni moo lancé woon track bi moom ci boppam ëlbatiku na ne CREI dañ ko war a réformer ndax mu conforme aux normes démocratiques n'est-ce pas euh, le ministre de la justice bu fi nekk présentement maire Sidiki Kaba moom tamit toog na ne CREI dafa am problème donc peut-être que moom moo ci gisul problème ONG yi tam nee nañu euh, procès euh, équitable mun fa am waaw depuis fort longtemps mm. parce que effectivement procédure bi ci boppam mooy poser problème képp ku nga xamante ni euh, nu mu durati affaire droit de l'homme soxal na la loolu dina la poser problème te euh, groupe de travail de l'ONU bu muy wax ci foofu la jaar euh, nu mu turati ak te je rappelle que ñoo ñu noonu adressé woon nañ une lettre au Sénégal bu nga xamante ni on on demandait à l'État du Sénégal de s'expliquer par rapport au condition de détention et au procès de Karim Wade. de détention jox Sénégal un mois pour mu tontu. un mois man j'aimerais bien. que Moustapha euh, que sëñ Moustapha su xamee pourquoi Sénégal répondrul mu wax ñu ko parce que man de mon point de vue c'est le Sénégal qui a fait exprès de ne pas répondre aux Nations Unies ba tax après ñu koy daan loolu damay service de transition pour ma wax ne imprévu amul c'est véritablement ce qui a été dessiné qui se poursuit jusqu'à présent te fu nga koy euh, leeralalee mooy lenn les euh, adversaires traditionnels des de des libéraux c'est les socialistes xool leen tey tous les partis pratiquement de gauche sont morcelés en mille morceaux divisés n'est-ce pas donc ma ne man dama ne loolu c'est pas un hasard c'est Macky Sall qui a fait exprès de retenir les socialistes dans les giron du pouvoir pour que l'opposition soit incarnée par le PDS et les autres tey jii nii li lay gën a won loolu mooy que le procureur de la CREI bu mu njëkkee def sa conférence de presse vingt cinq personnalités la cité woon tey jii nii ana kan moo si dem prison bu weesoo Karim Wade mais ay maître Ousmane Ngom ay Samuel Sarr ay maître Madické Niang mais toutes ces personnes là ñu ngi woon ci liste bi pourquoi parce que jàpp nañu ne il fallait que Karim Wade nekk la seule personnalité buy incarner nu mu durati cette injustice là pour mën a am gëddu nu mu durati euh, présidentiable boobu te par rapport ak euh, comment comment dire li tax euh, d'autre part ma ne nu mu durati jusqu'à présent le deal se poursuit dans quelles circonstances la ñu génnee Karim Wade de prison dans quelles circonstances man je rappelle que sama livre bi bi may arrêté di bind c'était en 2015 bien avant même qu'on ne parle de libération de Karim Wade et autres mais tey jii nii soo déggee les principaux acteurs ñuy wax maître euh, El Hadj Amadou Sall dem na ba ne ci biir prison ba la ñu fekk Karim Wade jël empreinte tam defal ko passeport et tout ça donc mu nekkee ay information yoo xamante ne dama jàpp ne ñoom pour ñu justifier ko pour un prisonnier particulier euh, nu mu tuddati normal ce sera très très très donc moo tax ma ne man de ce point de vue-là et jusqu'à présent le fait même le euh, nu mu tuddati ñu jékki-jékki présentement comme euh, monsieur Diatara lu mu doon wax tout à l'heure que notre presse là souvent est est obnubilée par le factuel que protocole de Rebeuss bi jël na présentement le devant de la scène on a tendance ñu tegee de côté la libération de Karim pratiquement kenn waxatu ji tout le monde parle de protocole de Rebeuss protocole de Rebeuss donc je me dis que tout ça n'est pas donc dañu nekk ci benn parti d'échec bu nga xamante ni maître Abdoulaye Wade depuis Versailles mu ngi yëkkati ay pion di teg Macky à son niveau ici au Sénégal moom tamit il mu ngi yëkkati ay pions di teg te loolu noonu fu muy mujjee ji mooy que ñu préparer un candidat comme Karim Wade à la succession de Macky Sall bi nga xamante ni son parti l'APR jusqu'à exemple préparé wu ko un successeur tey jii nii y a personne ki nga xamante ni tu tu pour que en dehors de Macky Sall il est en mesure de prendre le relais a pas donc les quelques personnalités bëgguma dugg un peu trop sur ces détails là mais am na ñu leen jaarale ba fakkatal leen. yaakaaroo ñu mën a créer ñoom ci diggante bi ku mel noonu. <laughs> non je ne pense pas. Ah, d'accord si Lamine ci yooyu nga xam ne kon boo koy dessiné tey maam Birame indi na fii loo xam ne presque c'est un faux purgatoire boo xam ne nañ ko xamee woon ci diggante numéro 1 ak numéro de mu daan métti ba jéggi dayoo. te mu mel ni kon à chaque fois am na lu ñuy ménager bi mi bi xaw a joxe tuuti xalaatu diil wala euh, barayego waaw xam nga man comme ni ma ko waxee dès le début euh, fi may yéeg xëy na si un peu aérien par rapport ak euh, soo jëlee Moustapha Thiel surtout boo yegsee ci jatara ñoom ñu ngi toujours ci l'actualité bi nga xam ne ñoom moom la ñuy dund am nañ ci itam lecture yuñ koy lire yoo xam ne selon les circonstances et selon leur position man damay xaw a yéeg tuuti moo tax sama livre bi nga xam ne incha allah ci mois d'août dina génn man Sénégal bu ma yéeg te itam sama yeneen noonu laa ko defee woon moo tax dama jëlaat ñu ma ko préfacé ñu nekk ay nit histoire ku mel ni euh, euh, ndem si yàlla euh, Assane Seck lam ci waxoon moo ci valable ba léegi moom mi nga xamee ne keroog bi ab Ablaye Wade di tase ak Senghor moom moo nekkoon le ministre des affaires étrangères bi ma koy professeur Sall bi ma ko wax bi ma ko waxtaanee ak moom daf ma ne man yëguma ci woon dara ci seen waxtaan il a fallu yëf yi jàll Senghor ne ko Ablaye Wade ñëw na nee na dafay def parti parti de contribution nga je me demande en politique nan la parti d'opposition mun a nekk un parti de contribution moom loolu la ciy yëg donc waxtaan naa ak professeur Assane Seck en tant que ministre boo xam ne bu bëri dajale dugal na ko ci gouvernement du Sénégal ci maa ngi bugg a bind ci lii mooy waxtaan di déglu waxu nitu terrain bi pour gis ne fort wit muy benn kon loolu dafa may yóbbuwaat ci premier élément yi nga xam ne génnewaan génn naa leen deuxième élément mooy euh, ci wax na léegi mu Moustapha Fall ci wax na léegi ne euh, banquier bi rek lañ jàppoon euh, dool moom rek lañ jàppoon jàppoon nañ ñeneen ñoo xam ne ay médecin lañ waaye dañoo yegg si woon ci benn point taxaw ci mooy enrichissement illicite imputation budgétaire yi nga xam ne fonctionnaire bu nekk mun ngaa dem réclamer ko pour wax ne da nga feebar boo ñëwee ñu jox leen ko mu indi ay échange yooyu loolu jarul di jarul créer jarul la leneen jusqu'à présent ku nekk ku def njuut njaay ci sa niveau service lu mel noonu lu koy topp mu ngi fi bi nga koy wax ñu doon viser Euh, Moustapha Fall nee na du toon yi mais ñëpp xamoon nañ ne barone yi dañoo taxawoon ku mel ni mustapha Niass dafa gëmoon ne moom moo war a nekk premier ministre. indi naa ko ci livre bi man dama wax ak moom mu wax ak Abdoulaye Wade dama ñëw ak euh, euh, Abdou Diouf dama ñëw Abdou Diouf ci bureau toog di ma waatal ci lépp lu mu am ci ay njabootam ci lépp lu mu am ne musta wax ak Senghor lu jëm ci ne danaa def. Moustapha Niass premier ministre fekk Moustapha Niass wax na ci Jeune Afrique dafa trahir lu mu waxoon ak Senghor donc yooyu yëpp nga gis ne kooku nag taxaw di ko bundu xataal donc def ci am yuy ñëw di répété waat yoo xam ne soo mënta reporté mostoo toog ak ñi mu concerné nga laaj leen kenn par kenn moo tax man li mot limaam bi rek mooy li may bind si dajalewaat naa yooyu yëpp nga xam ne ay xew-xew loon donc coût de l'enrichissement illicite bi nga koy yëkkati bi ko ab Diouf di koy yëkkati daf ko yëkkati woon quatre-vingt quatre-vingt-un mu yegg si fekk bundu xataal nañ jaar nañ ko fu nekk li lay woon itam ne même euh, kii joué mun naa bañ a xam jeu bi yëpp Idrissa mun nañoo joué ak moom te du xam ban carte lañ koy joué loo Macky mun nañ ko joué loo te du moo xam ban carte lañ koy joué loo moo tax euh, ni ko euh, maam Biram waxee ku nekk ci ñoom ci de check bi amoon nga sa fas woo xam ne moom nga teg sa wet foo mun di nekk moom ngay yëkkati di ko tekk kon ñi créer politique dañ dañu créer jeu d'échec pour mun ko expliquer kon ci biir loolu ñoom ñëpp xamuñoon lu bëree bëri ci li nga xam ne ñu ngi leen koy def loo il fi un moment c'est vrai Idrissa la soxla woon waaye dem nañu ba ne ay ambition kenn mënu ko mesurer mun naa dépasser dool élément bi ñu soxla woon moo tax teel nañ ko teggi ci 2004 bi nga xam ne dem nañu bon yooyu yëpp man expliqué naa. ci sama livre parce que ci témoignage bi maître Ousmane Seye doon def bi ma lire le quotidien am na fu ma waxee nee na parmi les héritiers il est le moins mauvais. kon ça veut dire qu'à un moment donné moom Idrissa nekkoon na ci. nekkoon na ci li ma lay wax ni sax sama livre bi expliqué na ba carte yi nga xam ne joué na ko à l'assemblée majorité bi yi nga xam ne mais yëpp nag yuñ xam la du loo xam ne da ngay inventé wala nga toog yëpp c'est l'actualité d'ailleurs intérêt livre Mame Birame bi. par rapport ak leen demul di yëkkati benn dossier confidentiel pour di ñëw da ngay xam ne c'est un journaliste d'investigation d'investigation mais pas euh, comme les autres yi nga xam ne daan nañ leen ko jiiñ ñooñu duñ ko ñoo ñu ñu daan manipuler lañ jox leen benn dossier boo xam ne dafa nekk ci diggante ñi xeex ñi ne ko am génne ko ki génnewul loolu ma biram doo gis ci biir lenn loo xam ne c'est confidentiel li ñëpp xamoon waaye rëcc na leen moom la ñëw tegal leen ko li ñëpp xamoon moo tax doo ko liir ba ne lii amul waaye da nga ne lii seetlu ma koon lii fàtte woon naa ko lii xamu koon et c'est ça foofu mooy intérêt bi analyse la def mais analyse bi soriwul information ni ñu koy jàngalee journaliste bi que le commentaire est libre mais l'information est sacrée jeune bu baax ak jour information bi donc partage de tous ces éléments man je continue à croire que la politique au Sénégal et toujours dafa nekk baaraygo nañ jël ci Lamine Gueye mooy présenter sengoor comme ni nga d'ailleurs man loolu moom ma taxoon na une bind livre à l'époque ci Abdoulaye Wade un président par défaut dama gisoon lu niroo diggante Lamine Gueye l'avocat Abdoulaye Wade l'avocat Senghor ak suñ xoolee bindin beeg gàttaay beeg yëpp Idrissa Seck yooyu yëpp ma def ay comparaison bien sûr n'est pas comme on dit bi ma xoolee mu ñëw présenté ko nit ñi ba pare Senghor yéegi kële di xeex ak moom ñaata kër a ci tas ak li ci xew yépp mu retourné si waat ñu ñëw ci partage di mu war a nekk la président de l'Assemblée nationale donc lu lay woon ne ñii liñ doon def xam nañ ko ñi leen di guider ñi leen di aay ak def loo su laajee xeex ñi xeex loo leen su laajee ñu ne na fi xeex bi yem xeex bi yem fa ñoo ñu seen biir donc bu ak Mamadou Dia mi nga xam ne ay mesure am ay ambition am kenn mënu koon arrêté daf cee dem ba ba des ci fukki at ak ñaar bi mu ñëwee ak Senghor mi ngi koy nettali sax bi mu ñëwee ak Senghor bi mu bu ko ne ah mais c'est d'art il faut quand même qu'on fasse des accolades dégg nga nga xam ne Senghor dafa dem ba crispé xam ne kii fi ma jaar ak moom teg naa ko lu ko jarul bi muy mu mut Dia ngi bind di nettali ne bi mu ñëwee di wax ak Collin daf ko ne j'aime pas les tu vois xamoon na ne kii perte na ba pare xamoon na le le carte bi fi ñu ko joué donc partant de beaucoup d' man ju continue à croire que ci biir affaire bi ci biir li ñuy tuddee le euh, nu mu tëddee le le le le le le kii protocole de Rebeuss ak yeneen ak yeneen événement politique yi nga xam ne danañ ñëw di fi fees dell coow di ci jóg yi ànd ak xaalis yi ànd ak coow jàpp naa ne ci biir loolu yëpp. am na waaye la nekk ci biir du ma wax le complot je parle de euh, nu mu de théorie du complot théorie du complot le monde moo ko njëkk bind dans les années 68 gis nañ ne wax nañ ko ci Amérique gis nañ ne wax nañ ko ci 11 septembre réew yu mag démocratie ci boppam moo ànd ak yooyu waaye du loo xam ne dañ ko jël rek sànni ko ci ay loxo ne ku yëkkati loxoom wala ko am mbooloom wala ku am ay idées yu baax wala kuñ formé dans des bonnes écoles wala joxe ci loo xam ne lu linéaire la ne ku ci jaar rek bu boobaa na nga daan jëlee premier ci classe da nga ko jëlee premier ci jël réew mi ku ci am ay euh, euh, yéene bu rafet ci réew mi mun nga koo jot doxal ko fi c'est pas si simple c'est pas si évident donc partant de tous ces éléments man je continue à partager que effectivement déggoo am na que itam ça vise certains pour des raisons yoo xam ne ñii jeu bi mënuñ cee dem ba jeex puisque mënuñoo yegg fii c'est le cas de Idrissa kii mën nañoo gën a soreek moom c'est le cas de Macky Macky itam il joue le jeu ci biir loolu nag waxaale est-ce que benn mandat la war jël est-ce que ñaari mandat la war a jël est-ce que ñaari mandat wu cinq euh, cinq ans la wala benn bu sept ans wala benn bu sept ans plus douze ans euh, ci biir loolu bii yoon Ablaye Wade comme ni ma ko waxee respecté nañu au moins euh, nu mu tuddati génération surtout ñu benn génération mhm. am na ñaari événement yu am importance ci Sénégal ñoom la ñu jël kii mooy l'après indépendance kële mooy 68 aar la su fekkee ñaar yooyu am na dafa mel ni Sénégal ay événement am ñu fekkoon fu mu gën a méttee bi yoon nag bu ñëwee dañ ñu moytuloo ba la xewoon dootul xew su ko defee loolu ñu créé ci benn fair rêver que ñun li ñuy demloo yëpp ba ci promesse yi ñuy defal fan yi ci banlieue bi di ko def ci biir réew mi yëpp benn fer rêve boo xam ne moom la ñuy tegal en permanence comme ki euh, woon doomam amul lum ko reerale teg kaw diir gi su demee ba sonn nelaw jàpp ne sama yaay ak mooy toggal ñu itam dañu jàpp ne li li ci réew mi ak pétrole beeg yëpp a ngi ñëw bu ñëwee dana doy. kon man no euh, théorie du complot bi mu laa gën a gëm. Mhm. plutôt que di ñëw ci. Euh, théorie bi waaw. voilà Moustapha parce que ci bu njëkk bi gis nañ ne kon mbir mi nekkoon na loo xam ne ci division lañ nekkoon maanaam. Euh, comme ni ko maam Birame waxee ñu maintenir ñëpp ñu nga xamante ne Lassane Wapha la wi compté yéen ci biir. ñu maintenir leen ci giron pouvoir bi mu mën a diviser opposition bi ba léegi PDS la bu paree ci division boobu mu mel ni ci diversion lañ jëm parce que nee nañu liñ suuli protocole de Rebeuss pour suul bi ñu duppee protocole de Doha la. oui d' accord Ousmane mais avant tout dinaa préciser tuuti à l' intention de Sidi d' abord. Mhm. Euh, CREI yi ñett nit la mës a ñaar ñi mu acquitté leen kenn ki mu tëj ko. ñetti nit ñi kenn ki mooy le banquier sii di wax na ko kooku tëj nañ ko trois ans amaan ko vingt millions keneen ki c'était un électricien de de de Sorano dañ ko mujj acquitté keneen ki c'était un directeur de société nationale en matière d'hydraulique dëkk dëkk Jolof dañ ko acquitté médecin yi si di wax euh, kii moo leen kii moo leen cours de discipline budgétaire moo leen jugé ñoom ñoo defoon imputation budgétaire cours de discipline budgétaire lañ leen yóbbu de même que corruption yi euh, Abdou Diouf njëkk jàpp foofu la leen yóbbu ñu rejeté ñu yóbbu leen ne leen euh, kii amul preuve amul loolu lii di wax lii si di wax euh, dëgg la médecin bi mais nag yóbbuwul leen CREI cours de discipline budgétaire la leen foofu la ñu atte d'accord bon pour Mame Birame nee ñaata xaw ma ñaata nit lan waxoon doon cité woon. kenn lan jàpp mm. mais d'accord il faut être patient quand kenn newul ne jeex na. déggu leen fenn fu mu bindee ne ça la mission de la CREI est terminée binduñ ko fenn donc on peut espérer et moi j'espère que dinañ ko poursuivre man je suis pour qu'on poursuive euh, qu'on continue la poursuite de l'enrichissement illicite de, de, je suis pour. il a dit que man rek maay maay défendre CREI enfin ça dépend de li muy wax maay défendre man je dis la vérité moi je suis un homme libre et je sais ce que je dis la CREI est une loi qu'on n'a pas abrogée j'ai dit plus que Mimi et, ce que tu as dit les autres que tu as dit j'ai dit ici à Walfadjri que on doit poursuivre l'enrichissement illicite la lutte contre l'enrichissement illicite mais il faut réformer la CREI je suis allé jusqu'à donner le, le nom de de, de de de de de la juridiction qui doit remplacer la CREI c'est la CRIEF la CRIEF va remplacer la CREI c'est quoi la CRIEF c'est la cour de répression des infractions économiques et financières kooku moo nar a remplacer CREI dina am double degré de juridiction li li CREI amul li nga xam ne défense euh, Karim yi loolu lañ doon attaqué amul double degré de juridiction CREEF dina ko am donc CREEF moo nar a remplacer CREI moi je suis pour la poursuite de la lutte contre blanchiment illicite fii laa ko waxee si si si Walfadjri donc euh, je suis en avance sur ñooñu nga wax parce que man je vais jusqu'au fond te xam naa li may wax euh, du ne jàpp waxoon na ñu bare waxoon ñu bare kooku ça ne veut pas bàyyi na ñu nañu bare la yi baa continuer ah parce que il faut comprendre aussi lu soit de la CREI mais Ousmane nee naa la yi nii lañ ko mën a saisir dénonciation plainte rapport man mën naa xool Ousmane ne il s'est arrêté ma bind plainte déposé un agent de l'administration ku am son agent bi nga xam ne il se comporte d'une manière bizarre mën na dénoncer ne suma agent bi je pense qu'il s'enrichit illicitement un commissaire de police peut le faire un commandant de gendarmerie peut le faire maintenant loolu nag bu ñu ko joxee CREI kooku enquête préliminaire CREI du ko def soit police moo koy def parce que CREI yi am nan seen policier ak seen gendarme ñooy def enquête yi ñooñu c'est des c'est des c'est des c'est des hommes de de tenue ah c'est des police c'est des officiers judiciaires c'est vrai mais dañuy def enquête rek du ma la tuumaalee ne la am nga lii ñu jox ko gendarme gendarme bi gëstu gëstu gëstu ba gis daal ne ah vraiment procureur lii kii liñ ko waxal amut. mais da sans suite on classe le dossier sans suite ce qui di dire que mën nga gis kun ku kun boole ci liste bi mu dem dem ñëwaat sax mu jaaree fa dem man am naa un cas qui m'est très proche daan ko muy dem di ñëw di dem di ñëw ba mujj gi mu jeex tàkk si moom donc nan insister nan exiger que CREI yi continue mais sous forme de CREEF am double euh, euh degré de juridiction mm-hmm. parce que loolu rek lañ ko euh, kii yeneen yi doon wax di wax ne euh, le renversement du fardeau de la preuve mm-hmm. seen groupe de travail boobu nga xam moom lañ yaakaar moo nekkoon seen seen boulet de sauvetage mm-hmm. groupe de travail nee na si délit bi page 9 si délit bi renversement de la charge de la preuve rek lañ mën a def kenn mënta def leneen hmm. groupe de travail si boppam moo quoi hmm. mu ne en conséquence euh, violation de la présomption d'innocence amul mu ngi si page 9 ba pare ñu waxoon détention arbitraire la. détention arbitraire il faut qu'on l'explique aussi. Hmm. la détention arbitraire la dé la détention n'est pas la condamnation. détention arbitraire di une détention d'abord Euh, provisoire kii xam na ko def nañ ko ko ba tey mooy diggante bin la jàppee ak ban lay jugé loolu détention provisoire. ñoom waxuñu woon préventive bi yaakaar nañu ko tëjee lañ wax ni. procès bi ak procédure bi lañ doon dénoncé. maa ngi si ñëw loolu rek la. Mm-hmm. on a servi à Karim. six mois bi. Mm-hmm. on a servi à Karim. Mm-hmm. une mise en demeure ki doit durer six mois. au bout de ces six mois ñoom gisaan nañ beneen affaire ñu servira ko beneen mise en demeure. CREI yi nee na deuxième mise en demeure bi waroon ko xoon jox. Hmm. war soo na dépassé six mois. six mois euh, te dit détention arbitraire. Hmm. mooy li ñu la téye sa détention provisoire bi waroon na durer six mois. ëpp na six mois ëpp na six mois détention arbitraire am na condamnation arbitraire am na. par exemple Karim Wade du demoon ba purger six six ans mi. Hmm. ñu bëgg ko fa téyewaat même un jour la condamnation est arbitraire. lii mooy détention. arbitraire ça n'a rien à voir d'ailleurs. on a tellement raconté des histoires sur le dos de du groupe que président dafay mujj ñëw xam nga Sénégal dañu gaaw a fàtte. président CREI ñëw na fi joxe interview ci benn journal daal di ne faut plus faire dire au euh, au groupe le groupe n'a pas dit on a jamais dit de Karim Wade on a dit qu'il faut réparer la détention arbitraire qu'il la subie ils ont mont montré wax na ñu sax nu ñuy réparer ñoom nee ya y deux types de réparation. Mmh. si l'intéressé l'accusé est condamné. on défalque les jours qui dépassent la détention légal sur sa peine le cas de Karim Wade suñ ko doon départ loolu ñuy def six mois et deux mois yi si def huit mois yooyu lañuy ñuy défalquer si six ans si le gars est libéré le cas du du dañ koy indemniser jox ko xaar mais loolu président groupe moo ñëw toog fii wax ko fi mais ba léegi ñu ngi continuer wooy le groupe a dit de libérer ku ma mën a woon si ku ma mën a woon si avis bi fu groupe bindee il faut libérer Karim Wade dina ma ko wax c'est dommage am naa am naa avis bi mais mi ngi suma oto hmm. su ma ko indi woon léegi dinaa ko tax kenn du ko fi gis kenn du gis fu group bi ne libérer Karim Wade ñoom nee nañ la la condamnation de Karim Wade du seen affaire ñoom seen affaire daa mooy détention euh, préventive bi bi dépassé bon pour euh, suma jarbaat euh, Yankuba Jatara Jatara Idi Idi tu sais ñoom ñëpp ay xale yu Ablaye Wade daan servir la il les utilisait ñoom ñëpp idée si njëkk Idy a liquidé Moustapha Niasse Ablaye Wade da ko chargé mission boobu chargé waat ko yeneen mission ci bi mu nekkee huit mois ah. premier ministre à l'époque bi mu muy liquidé Moustapha Niasse directeur de cabinet la hmm. booba Niasse moo nekk premier ministre moo ne ko tu tu viens ou tu quittes ci koo xam ne du sa borom Idi taxaw na fii ci ses te Diagne ancien président de l'Assemblée. Youssou Diagne Youssou Diagne koo xam ne il est il a beaucoup aidé le PDS. Mhm. parce qu'il a perdu des des élections Idi di ko rentrer dedans. da koo xas keroog ba góor gi ñax tooy tooy xepp sa suba sa Ablaye Wade wàccee ko donc ñooñu man yooyu yëngalu ma yooyu moom Ablaye Wade la. kon dañ leen di fay seen bor. daf leen di daf leen di utiliser. comme mhm. utiliser bi mu fi téye Macky Sall bi mu jëlee Macky Sall. c'est vrai que il a cherché à faire faire à Macky des, des choses mais man tout le monde man waxoon naa bindoon naa à l'époque temps yooyu j'étais même pas encore avec Macky mais dama doon xam li xew neewaan naa leen ne leen Ablaye Wade ba mu jëlee Macky Sall jëlee ko primature yóbbu ko assemblée laa bind ne l'homme qui devait être le le le remplaçant légitime de Ablaye Wade est relégué à une place de troisième âge à un poste de troisième âge bind naa ko boo demee di nga ko gis si net bi ma nekk Ablaye Wade prépare son fils si cet entreprise euh, échoue il va tenter un troisième mandat la je l'avais écrit donc yooyu Ablaye Wade doon leen def loo man euh, yooyu ça ne me dérange pas euh, Diatara que kii di def ko que euh, kii def kooku góor gi la xam nga dañoo nekkoon ak seen maam mm-hmm. koo xam ne lu mu leen defloo ñu def ko dañuy ruus naam lañ ko jàppee woon mais du doon seen morom comme si di ñu bañ bala ñu def leneen et cetera et donc loolu laa bëggoon a wax à propos de. li mu wax nii de li mu wax ak li maam bi la wax. Euh, Yankuba Diattara ci noonu nga xam ne kon euh, jàpp na ne utiliser na Idrissa ci ay mission est-ce que jàpp leen ni ci yéen seen côté utiliser na ñeneen peut-être contre seen leader ci ay jamono wala. non waaw dama bëggoon quand même euh, préciser. Mhm. je pense l'a dit tout à l'heure que la théorie du complot il faut dire la théorie du complot politique au Sénégal est l'œuvre de Ablaye Wade Ablaye Wade mooy bind li muy wax yëpp mun naa ni lu Ablaye Wade théorise la bind ko teg di ko mettre en œuvre nag et di ay acteurs mais là où peut-être je suis pas d'accord avec lui mooy Idriss n'a jamais été acteur ni complice dans cette théorie du complot ndax bi ko Wade commencé bind yàggul. Wade bi mu koy commencé bind mooy bi bi mu commencé xalaat ni doom ji war na ko remplacer ci la commencé di bind loolu moo maintenant ci loolu nag comme sama tontu dama waxee ñi ñi ko wër te ñu nekk les ci légitimes nan lay def ba jaxase leen seen biir ñuy neutraliser te di liquidante moo taxoon Idrissa wax loolu mag Macky Sall ni ko bi ma Ablaye di fi jële dina la teg yow utiliser nañ la d'abord avant mu fi jële deuxièmement euh, xalaatoon nga ni. su fekkente ni am na kuy remplacer Ablaye Wade peut-être yow lay waajal mais fekk yaa ngi nax sa bopp bi may wax ni Ablaye Wade kenn lay préparé muy doomam moo ko ñor mais bi des nga décidé wax ñëpp kenn gëmu ko ñu ba dañ doon wax non kii dafa fiir dafa jaloux et tout cela mais tey je pense l'histoire nous a donné moo tax ma ni Sidi ci loolu Wade a commencé son récit de complot depuis mu débarrassé wu di Idrissa ñi fi des nag nan lay def ba liquider leen il dit le moins mauvais, moins mauvais des héritiers. Mmh. mais Idrissa n'est pas mauvais Idrissa est très bon Wade le sait Idrissa moo théorisé la marche bleue théorisé alternance politique au Sénégal dem jëli Ablaye Wade teg ko yéen ñëpp a ngi foog ci des acteurs. rencontrer yoreel ko la base politique du PDS mais également redynamiser le PDS dem aussi wax ak opposition bi ba ñu amaat confiance ci Ablaye Wade dem jële ko. mais moom réforme boobu àgguloon da ko mujj dakkal mel ni wóolootu ko woon am na lu leen boole woon apparemment ñoom ñaar. non non non comme li ma wax moo ci ne xam nga wax naa ko sànq ni leen 2002 la Abdoulaye di commencé di xalaat ndax à un moment donné Abdoulaye Idrissa da doon gêné Abdoulaye Wade ci ni muy doxal réew xam nga dafa am benn ministre bu amoon ci Abdoulaye Wade puissant yor loo xam ni li gënoon a ëpp solo ci réew mi mën naa ni dëkkoon Thiès mais nee na Abdoulaye Wade su ko doon gis yenn saa yi day def day def ba Idrissa Newu fa mu woo ni ko lii laa bëgg ndax su fi Idrissa newee da koy tere wala Ablaye su woowee ministre wax ak moom ni ko lii laa soxla su kooku gisante ak Idrissa Idrissa naan ko tu n'as pas droit de lui donner ça ne lui appartient pas bu ko jox Ablaye Wade nag il avait un dilemme un problème parce que nan lay def ba kii nga xam ni son proche collaborateur am la mais ci démarche ak probité ni muy doxale ak nga xam ni moom mooy président la république te mais un président boo xam ni honnêtement Wade am na vision am na lépp mais quand dafa am ay vices Wade dafa am ay défauts yu am yu métti loo xam ni kenn du ko gérer réew or Wade pour moom le Sénégal quel que soit affaire état moom affaire loi bu ko kenn wax moom li mu bëgg la xam nan lay def ba doxal ko bu ko kenn wax ay loi ki ay lii n'a pas le droit wala non non non Wade ne connaît pas ça ce qui l'intéresse mooy li mu xam li mu bëgg or réew duñ ko yoree noonu donc côté boobu kon nga xam ne Idrissa était un obstacle donc mais su débarrassé aussi ci Idrissa nan lay nan lay teg ci kanamu Sénégalais yi nan lay teg ci kanamu PDS te aussi ah il faut ko reconnaître nag Idrissa liggéeyoon na biir PDS liggéeyoon na aussi bi mu nekkee premier ministre Sénégal teg ko ci raay yoo xam ne ñëpp gisoon nañ Sénégal yi avancé mu inventé nag une histoire il a ay ñoom Ousmane Ngom ay ñoom Moustapha Niasse su doon man bala may accuser Idrissa Seck di ko attaqué dinaa wut sama preuve yëpp teg. Hmm. kon nga xam ni l'histoire du protocole de Rebeuss est une pure invention politique d'Ablaye pour liquider quelqu'un qui était il faut le reconnaître assez bien assis au PDS mais également ci réew mi liggéey fi loo xam ne ñëpp gis nañ ko kon Ablaye Wade loolu moo tax maay téw théorie ay complot Ablaye dafa yàgg nekk nañ ma baal nag ci terme bi koo xam ne dafa yàgg du ma ni kàccoor mais dafa am ay sew yu mu yàgg woon def d'ailleurs il disait à kii nu mu tudd tonton Alioune Badara Niang Idriss dañu koy wax souvent yenn yi su ma bëggoo Idrissa Yega ah, ndax mu xam ne Idrissa am na yoo du ci dugg. donc kon nga xam ne ñun muy affaire u protocole de Rebeuss est une pure invention complot politique la même bu mën naa ne Mamadou Dia xam nga indi souvent si dañu ñuy rappeler l'histoire l'histoire dañ ciy jàng mais mun naa ni complot wu Ablaye Wade contre Idrissa Seck moo raw sax bu mu sa bu euh, bu bu bu bu Mamadou Dia ndax en réalité Mamadou Dia du woon complot Mamadou Dia yi day fee peut-être maintenant est-ce que Senghor devait être aussi euh, devait être tolérant wala waroon na mën a accepter peut-être moom Mamadou Niang ñu waxtaan par rapport à leur parcours fi ñu jaar. Mhm. ba bañ a egg foofu ou bien mais pour ah, Idrissa Seck y a eu parce que dañu wax ne protocole de Rebeuss tant que waxul wala waat kenn warut wax parce que ñoom ñaar rek xam li dox seen diggante. non on n'a pas dit ça. Mhm. a dit le protocole de Rebeuss n'a jamais existé. Mhm. c'est une invention et depuis lors depuis 11 ans on le dit. personne n'est capable de nous montrer un protocole boo xam ne Serigne Idrissa Seck moo ko Abdoulaye Wade ci quelque chose quoi que ce soit masta am deuxièmement aujourd'hui la euh, le protocole de Rebeuss bi ñuy wax les gens de Macky Sall l'ont ressorti bi ñu defee le protocole de Doha xam nga protocole de Doha bi ñuy wax pour libérer Karim Wade je pense euh, notre wàcc wax na ko du loo xam ni ay invention la ñun dañoo wax avant loolu di am ñu wax nit ñi teg ci seen bët Idriss Seck moo njëkk a wax libération Karim Wade est un complot est un deal international bi mu ko waxee ñëpp tëb daan foo ko teg mu ne waxoon naa leen ko avant affaire bi ñëw Karim Wade ci boppam Karim Wade ci boppam il a écrit les conditions de sa libération permettre wu ko mayu ko woon li mu bëggoon yëpp def ci Sénégal mu def ko ci la wax ne après rattrapé wu bi Idrissa waxee pare ne waaw bëggoon naa dem Touba bëggoon naa jaar fii bëggoon naa rencontre samay militant mais niñ ma libéré mayu ma woon ma def loolu lépp mais aussi libéré Karim Wade comme ni ko suñ mbokk mi waxe sàmm ñu defal la passeport en prison indi jet privé tegal la ci tarmac nga génn ñu jaarale ci benn kër ñu ñaanal la nga départ au lieu nga dem Paris seeti say doom wala seeti sa papa ak sa yaay nga xam ne lu ne daj nañ ko ci ndax Abdoulaye ñëwaat na Sénégal loolu lépp wa munoo ko xaar waajoo ko directement Doha ñu ni dans l' avion y avait le procureur du Qatar xam nga moo tax ma ni il faut quand même que les Sénégalais parce que un procureur de la République du jóg noonu un procureur de la République buy dem ci réewu jàmbur ñu jox ko jet privé il est soit en mission diplomatique ou bien judiciaire boo xam dafa ñëw pour waxalal réewam te kooku procureur kenn koy yónni mooy ministre de la justice mm-hmm. kenn koy jox dëggal muy président la république kon émir du Qatar moo jox ministre am directive mu jox ko procureur bi ni ko demal doxal Mali est-ce que dañu def échange de prisonniers Karim Wade ñu jébbal ko Qatar waa Qatar am lu joxe ou bien am na leneen Karim Wade moom ci boppam nee na liiburul pour def li mu bëggoon def kon deal international loolu lay jëri loolu lay tekki mm-hmm. mais Idrissa daf ko wax lu avant loolu di am deuxièmement Idrissa tout dernièrement il a dit nañu xool la triangulaire Dakar Doha Colombie xam Sénégalais yi dafa mel ni Idrissa lettre bi mu adressé aux Sénégalais aux citoyens. Mhm. il a trois parlé de trois capitales. mais xool qu'est-ce qu'il y a entre Dakar Doha et la Colombie. nañu xool dañu creuser moo tax ma ni les journalistes d'investigation ñoom Sidy Lamine war nañu mën a creuser loolu xool lan la. Mhm. mais le protocole mais loolu war na leer quand même. Mhm. maintenant ci loolu pour nga étouffer ko nga dem invent jëli encore say yàlla na ma yàlla bal ay ñoo xam ni wax dëgg yàlla xam nga Samuel Sarr en principe ci Sénégal Karim Wade Karim Macky euh, nu mu tudd Samuel Sarr moo waroon a jiitu Karim Wade en prison. Mhm. Samuel def na Sénégal loo xam ni préjudice bi mu porte Sénégal ba léegi ñu ngi koy dund ndax rappelez-vous nekk na fi ministre de l'énergie. mais également nekk na fi directeur la Sénélec pétrole bi ñu defoon ndox mu yàq suñu machine yi ñaata milliards la ci Sénégal perte Sénégal perte na ci ci jënd pétrole boo xam ne baaxul ay milliards lay jar deuxièmement Sénégal perte na ci machine yoo xam ni def nañ ci produit bu baaxul mu yàq suñuy machine ba léegi Sénégal gi topp di di di di di di jooy loolu mais genre yu mel noonu ñooñu Sénégal tey ñu fa woon yëkkati kaddu wala seen place c'est la prison ou la guillotine ñooñu suñ doon wax ndax préjudice bi mu yàqal Sénégal kenn xamul nu mu toll te pourtant ay milliards de ay milliards la Macky Sall les vingt sept milliards yi muy wax ci ay jox ko enseignants yi mais nañu wax rek li ñu perte par secteur yu mel noonu nga xam ni ay faute de gestion ay faute la ay nit def ci tayeef ak ci complot pour détourner notre xaalis xoolal ñooñu dafa nak rek mu mhm. terminer ñooñu tey porte préjudice boobu ba pare tey Macky Sall may leen ñuy wax ci Sénégal. deuxièmement. Macky Sall là où peut-être il a il a il a il n'a pas été euh, euh, dem ba ba ba ba jusqu'au bout de sa logique. Samuel Sarr tooñ ko rek ci benn face page Facebook am mu jàpp ko ci loo xam daf ko accusé mais kooku boppam la xool moom mais xoolu intérêt réew mi intérêt réew mi mooy mu xool lan la mag Samuel Sarr def comme foot. de gestion dans ce pays nga xam ne les preuves sont la ak ñeneen ñi nga xam ne comme ni mu ko wax ci liste boobu. Mhm. ñi ci def ndax ñun on est ouvert ci mbiru protocole de Rose comme li ñu ci wax mais ñoom ñoo dem ba ci biir reculer mais ñoom Idrissa mi nga xam ne depuis 11 an la muy wax kenn mënu ko dindi. moom pare na pour mu leer moom depuis 11 ans kenn mënu ko teggi mais kooku kay su la nee may naa leen occasion ñu leeral lépp nañ ci dem. nañ ci dem pourquoi dem ba ci biir reculer. d'accord dinañ ci moo tax ñu ni ñun liñ jàpp. Mhm. bëgg nañ étouffer protocole de Doha ci wax. complot international bi le deal international moo tax ñu indiwaat protocole de Rhodes xam nañ ne invention la c'est des mensonges deuxièmement bëgg nañu saliraat encore une fois taqal Idriss Seck beneen bi may terminer mooy sama tonton wax na ni Idrissa Abdoulaye daf ko utiliser contre Moustapha Niass tonton xam nga lan moo amoon Moustapha Niass dafa diina ak Abdoulaye Wade ak Idriss Seck Idriss Macky Wade ne ko dama bëggoon Moustapha nga intégrer PDS pour ñu def un bloc gis nga Macky Sall mu def ak yéen pour un bloc boo xam ni dañuy àndandoo comme ñu ngi soo a jël le pays te ñoom ñëpp yàgg nañ xeex am nañ expérience ñu liggéeyandoo ndax Abdoulaye Wade nit pour moom benn mandat la bëggoon def su demee ay Moustapha Niass jël après ñoom Idrissa ay xale la ñu jël loolu la Abdoulaye Wade proposé woon Moustapha ci benn dîner Moustapha Niass a refusé quand Moustapha Niass a refusé ñu ni kon ñoom PDS ak Idrissa ak Wade ñu ni kon nag war nañ jël suñu matukaay pour defar suñu un parti fort ci loolu. kon nañ jël suñu matukaay defar ñoo nañ jël suñu primature nañ jël suñu kii compter sur nos propres moyens. ci la Idi dàqee Moustapha moo ne daa xam ndax Wade moo ne ko maintenant comme mënoo ñëw. ñun tamit ñun suñu poste nañ ko jël defar suñu parti da am un parti fort continuer gouverner mais c'est ça mais Idrissa en fait tooñul Moustapha Niasse. donc xam ni. Mhm. c'était le l'a rejetée. il devait d'accord. kon dinañ ci dellusiwaat léegi ñu seetaan benn publicité daal di defaat beneen tour de table incha gërëm di leen sant di rafet seen ànd ak rajo télévision Walfadjri ci seen émission diine ak jamono. ñaareelu pàcc gi nag itam wéyaat bi léegi rek ci lu ñu waxtaanee tey wàllu politique la euh, ñu ngi ci sukkandiku nag ci benn livre suñu naataango Mame Birame Wathie bind ko nag ci wàllu politique mooy affaire Karim Wade Macky Sall la double victimisation victimisation gagnante de Maître Wade euh, ñu wéyale ci nag di yaatal ba léegi ci wàllu politique ak li mu laal yëpp Mame Birame kon parce que Yankhoba Diattara mu ngi doon wax euh, ku ci nekk comme ni ko si di waxee woon sànq Euh, dina am wax joo xamante ne toujours day dem ci technique dem ci science mais dina am wax day dem ci politique. ngir fi nga toog mën a dëgër. Euh, parce que colonel Cissé fii Yankoba toog la toogoon mu ne euh, jël delloo moom am na ci mbiru Idrissa Seck am na lu mu jot delloo. ci condition yi ñu ko libéroon en 2007 itam ñu ne woon du am triomphalisme du am dem dikk du am xumbaare. bi tax ñu ne sax bu campagne woon jël réew mi parce que moo jëloon deuxième te campagneul. Mm-hmm. e ce que ci waaw waaw tout à fait donc man fu may euh, enchaîner mooy par rapport ak moom fu mu terminer tout à hmm. l'heure euh, bu amee woon idée en 2002 que war na euh, organiser waat sa succession mu war a tourner autour de Macky Sall <coughs> pour man c'est en 2004 la commencé réellement di manœuvrer hmm. ci en avril 21 avril 2004 ci la ñu dàq Idrissa Seck hmm. fal Macky Sall mais ñu bëri dañuy fàtte ne en juin tout juste après ci la ñu fal Macky Sall que l'autre là euh, Karim Wade président conseil de surveillance bu annoncé n'est-ce pas donc euh, en 2004 donc man du ma d'accord trop ak euh, monsieur Diatara bu ne Idriss Seck bokkul trop ci diir bi mosul nekk acteur donc euh, man dama jàpp ne de 2004 à 2007. Mhm. maître Wade moom mun na ko ñàkk a xam mais man maître Wade daf ko doon utiliser. Mhm. am na ñu bëri ñu ngi naan 2007 bu élection bu opposition bi booy boycotté élection législative yi c' est à cause d' Idrissa Seck. Mhm. te comme nu ko président waxee léegi man je n' invente rien du tout. damay damay jël rek ay ay fait ay déclaration yu nga xamante ne nii tasaaroon nañu un peu partout. ma teg ko def la lien te. pour gën la firndeel loolu sëñ Moustapha Fall Thiey mii di wax maa ngi koy cité ci livre bi mhm. en 2007 bu Idrissa Seck quitté la coalition Front Siggil Sénégal mhm. parce que <clears throat> élection euh, législative 2007 euh, yooyu yi nga xamante ni après par la suite la moo tax ba ñu fal Macky Sall président assemblée nationale mhm. Idriss Seck dafa intégré woon Front Siggil Sénégal te nu mu turati ñu bëri jàppoon nañ ne moom moo poussé opposition euh, classique bi ñu gedd assemblée nationale ñu gedd te avant boobu je rappelle que Euh, élection euh, euh, présidentielle de 2007 Maître Wade mu ngi ko gagné au premier tour avec cinquante cinq virgule neuf pour cent mm-hmm. Idriss Seck bo participé na ci grandement ci élection boobu parce que il était revenu il s'était classé en deuxième position Wade rawee woon na ko certes ay quarante pour cent mais ay campagne très bien Moustapha mm-hmm. Niasse ak Ousmane Tanor Dieng yëpp Idriss Seck moo leen jiite woon te jóge ci Maître Wade donc mooy li ma doon wax au da ngay créer un opposant mm-hmm. pour que à la place des véritables opposants kooku noonu mën a cristalliser le mécontentement te boo ko boo gisee nu mu turati les propos de de de de de de Moussa bu Idriss Seck bu nga xamante ni weesu nañu les élections de 2007 mu démissionné il avait dit précisément le le le le le le le 31 le lendemain premier er août la ko le journal jiri reprendre le premier er août 2007 vous disiez exactement. euh, Idriss Seck n'a jamais été un opposant à Maître Wade, mais un concurrent d'intérêt. Sa présence au sein de, du Front Sigil Sénégal n'était pas pour des raisons tactiques, n'était que pour des raisons tactiques opportunistes. Pour lui, l'opposition n'était qu'un bouclier, un instrument de chantage, de superfuse pour précipiter ses retrouvailles avec Wade. Idi a fait la tragédie en trahissant encore l'opposition et son parti vient de jouer la comédie en donnant carte blanche pour ses retrouvailles avec Wade. Moussa Fofal Thié. ah d'accord. te yow ci am na noo ko doon waxee ci wolof xaw ma def ñuy naan dem kër baayam xaw ma waaw dama ne woon euh, xam nga Idy dama jaar ak moom <laughs> euh, moo yàq suma émission quoi. Ah. kii xam na. Ah. Idy moom ñoo créé coalition jàmm ji. keroog ba CPA tase kër Amath mhm. lan dem kër kër euh, Bathily. créer la coalition jàmm ji. Mm-hmm. Tanor son ami ne ñu Idi a demande à intégrer notre coalition ma ne ko Tanor buñ ko fi indi il nous fera plus de mal que de bien. dina ànd ak ñun ba sa cappaandaw ma mu ne ñu mbalee suma mbaay laay àndal. lii la générique. Euh, générique amoon na si générique à l'époque waaw. donc maam Biram. Euh, mais <laughs> <laughs> réalité. Mm. xam nga il faut pas peut-être <coughs> tronquer l'histoire mm-hmm. gis nga coalition jàmm ji hmm. euh, comme ni nga wax entre Tanor ak Idrissa liñ ci waxtaan yépp lu ci bëri xam naa mais en réalité ci tax ñu boycotté en 2007 c'était Moustapha Niass ak euh, Ablaye Badji Idrissa un jour Pape Diouf dafa ñëw set si ko ni ko ñuy waxtaan mais de gars yi nee nañ Ablaye Wade su nanguwul mooy propos réforme yi ñu doon wax. Hmm. ñu opposition bi nañ day boycotté xam nga lu ko Idrissa wax avec Wade il faut être il faut pas être jusqu'au boutiste ko posé condition da leen di da leen ci bàyyi Idrissa loolu la wax Pape Diouf ne ko il faut être très prudent avec Ablaye su ngeen ko waxee ni su deful lii dañuy boycotté da leen di bàyyi ci biir donc c'est vraiment tooñ Idrissa Seck daan ni moo taxoon opposition boycotté dama ne Pape Diouf mën ngeen ko mu rendre leen compte que Idrissa Seck loolu la leen wax ni leen il faut très prudent mm-hmm. kon ngeen jël seen responsable su ngeen ko décider il faut aller jusqu'au bout mais Abdoulaye Wade bu leen defee noonu. bu leen defee kon Idrissa Seck n'a jamais été. à l'origine donc du boycott de la Jamra. jamais non non moi non, non, j'ai pas en tout cas. moi j'ai eh, Ablaye Badji Moustapha Niass ñoo gënoon a nekk le radicaux Idrissa ni leen def leen ndànk mhm. Pape Diouf moo doon représenté. Mhm. su ngeen waxee loolu Ablaye Wade dina leen bàyyi du réformer dara ngeen boycotté mu bàyyi leen ci biir. mais moi j'ai pas dit ça waxuma loolu ah, man waxuma loolu parce que man li ma wax c'est clair. non non Mame Birame Mame Birame moo doon génne waaw damay leeral tuuti rek. waaw euh, parce que bëgg naa mu xam moom itam. Mm-hmm. Euh, coalition jàmm ji laa la wax li ma bokkoon ak moom. Mm-hmm. d'ailleurs problème bi mu njëkk a indil législative lañ doon dem. Mm-hmm. il dina il revendique les pour cent de la liste ma ne ko au de yow kenn xamul loo mën soo dem élection tout seul li tax ñu lay jox 30 pour cent mais il a manœuvré manœuvré ba gars yi jox ko 30 pour cent moo waral ñu bare si coalition jàmm ji gedd dem. jërëjëf keroog dama julli ñaari rakka Kaolack trahison bi ñu def si coalition jàmm ji yàlla na yëpp yàqu. te noonu la effectivement yëpp yàqu na parce que mujj na annulé élection yi ba kenn doonu député. kenn doonu député jeexal ci li nga doon cité wala. waaw donc en 2007. seen ci nekkul ci élection yooyu la tàmbale. Mhm. parce que soo fàttali ko 2007 bu ñu paree élection yi opposition pratiquement ñëpp dañ doon contesté élection yi résultat yi. Mhm. Mhm. Euh, Ousmane Tanor Dieng ak Abdoulaye Bathily déposé woon nañu recours mais lu tax loolu am euh, nu mu amul suite. c' est parce que Idriss Seck mi nga xamante ni moo classé woon deuxième moom moo félicité maître Wade donc yow bu ñu la nee yaay deuxième nga félicité le gagnant le troisième ak le quatrième. amatul lu ñuy wax mm-hmm. n'est-ce pas. donc et au-delà de de ça. lu tax ma jàpp que ne euh, nu mu tuddati euh, Idrissa Seck le protocole de Rebeuss dont il question. Mm-hmm. bi nga xamante ni moom la ñuy wax. moo indi coow li moo indi coow li. lu tax man ma ma ma ma ma jàpp ne même bu nekkul un papier administratif bu nga xamante nii valable na man jàpp naa ne écriture am na signature am na pourquoi parce que ci waxu ñëpp benn période mooy ñëw mooy décembre 2005 décembre 2005 si vous boo rappelé woo bu baax Idriss Seck ñu ngi ko libéré en quelle année donc maître Wade dane en 29 décembre 2005 Idriss Seck accepté na pour ne dina ma delloo xaalis bi quelque temps après rek lañ ko libéré donc am na wala amul les faits sont là n'est-ce pas te bu ma ñëwaatee par rapport ak euh, lu sëñ Diatara di wax deal international bu Idriss Seck di wax man dama jàpp ne les Qatar yi dañ leen si dugal juste pour brouiller des pistes maanaam tey jii nii su ci bu ñu tudduloon waa Qatar diggante Abdoulaye Wade ak Macky day leer naññi bu bu ci Qatar yi duguloon il faut moom écran bu. très bien maintenant. Mhm. beneen une troisième partie. pour davantage brouiller les pistes ñu bañ xam ne Macky Sall et maître Abdoulaye Wade ils sont toujours de connivence. par rapport à cette question par rapport ak ak ak ak cette mhm. te mu tuddati monsieur Moustapha Thial Thié. Mhm. mu ngi wax ne la CREI dina continuer les vingt cinq autres personnalités dinañ leen convoqué. mais a Ousmane Ngom du si bokk. pourquoi pas ah mais mag le président Macky Sall moo ko dugal ci avion présidentiel alors qu'il était interdit de sortir du territoire l'interdiction n'est pas euh, définitive mon cher non non mais mais même introduction bu nekkul c'est définitive dañ ko war a lever avant que muy war a xamoo ndax levé nañ ko. non non non je non non ah, je dis non non non non ça c'est ça c'est ça c'est notre débat ça c'est notre débat dinañ ci ñëwaat léegi yow ak yow. je vous dis juste léegi yow kon tey nekk nga Saint Thomas daal ci mbir mi boo gisul mënoo gëm ne. non je veux je veux juste dire que. Uh-huh. nu mu tudd déjà y a des indices qui montrent que ñu si bëri si ñoom. maître Madické Niang dernièrement levé dindi nañ ko très bien euh, nu mu tudd Samuel Sarr la même chose Omar Sarr moo demoon ci dialogue bi justement donc ñooñu noonu créé yi bu leen toppee it tey dina bett Sénégalais yu bëri man ah man du ma ne déedéet mais gëmuma ko. d'accord ah, d'accord parce que ci yaa ngi wax théorie di complot waaye en vérité aussi boo demee ba mu yàgg euh, li ñuy def ñoom ci seen biir comme président Idrissa waxoon na ne euh, sama gémmiñ noppam noppam sama gémmiñ kon finalement ñaari nit ñooñu ñu waxul aussi ñu ci luwaat waxu protocole xel mën na cee ñaaw mais li ci nit mën a jàpp tey ci doxalinu politique. waaw li ma ci mën a jàpp mooy li maam Biram indi ci biir livre am Mame biram dafa remonté seen jote ci mbiru xaalis ci les fonds politiques yëpp ngi ci livre bi ah man livre bi dama ko liir toog avant may accepter naa préfacé wala bu ma préfacé ndax yi ñuy wax yëpp ak lu leen ëmb am na mu wax jote bañ jote foofu ci fonds politique bi ak ko indi woon mieux euh, Idrissa ci boppam dafa waxoon enregistré maître Ablaye waat dañu waxoon kàddu googu ñu waxoon ay bandi buñ demee xeexi ba pare mm-hmm. bu ñëwee ca séddoo ma foofu la problème bi di am donc ne xaalisa nga fa woon wax nañ ko ay yoon ca bañ nekkee ci nguur ci biñ génnee ci nguur waaye Idrissa dafa am voie bu mu choisir je pense que am na journal bu ko euh, génne fan yi ci échange euh, yi nga xam ne moo am ci SMS dafa waxoon ne moom dafa bëgg préserver sa dignité dafa bëgg a mënta jàkkaarloog ay militaires yu joxe seeni i bakkan pour xeexal réew mi muy nekk nit koo xam ne bu boobaa dafay nekk moins que ça dafay nekk ne man ni leen jiite def yépp nag réew mi sama bopp rek moo ma jaral dara donc ci biir wax yooyu en tout cas si ça se vérifie puisque journal bi dafa jël deux pages mm-hmm. def ci mbooleem ay échange lu mu tuddee ay échange yu ay SMS bu fekkee yu mel noonu la ku bëgg garde garder honneur am ba pare war a am ambition pour réew mi kon baat yu mel nii yëpp dana ko moytu le maximum kon nekkuma ci loolu bëggoon naa signaler itam ne doolu ne dañoo indi pour ñu wax te fekk PDS amu fi kàddu invité woon nañ leen ñoom ñoo tontuwul ba léegi damay bëgg a wax ne toujours itam ñu ngi préserver ne duñ bàyyi kenn ñu ko fii door gannaaw te fekk mu mun a ñëw waaye ba ci dernière minute ñu ngi leen doon xaar dañ leen a mujjul jot xëy na ñàkkul dañoo am ngànt donc point yooyu yëpp bëggu itam ne ki dàq manœuvre ki dàq def ay kii Sénégal ba sax jàpp ku ki gën a yées mooy Ablaye Wade boobu itam d'accord ma ci man dama yaakaar ne système bi moo ni bindoo looloo tax ma remonté waat ca loola ne bu fekkee demaat nañ ci lemin Guèye te man bi ma koy bind bind naa ko suñ kër yëpp moo ko tas fexe ba kër yëpp tas nekk ñaar bon lakkante ay kër defante ya nangam ba pare nag te moom comme ko doon joteel biñ paree dañoo tase nekk seen bala xalmatdaa loolu itam mosu fee jóg projet itam préparer sa doom damay bañ mu mel ni Ablaye Wade moo ko njëkk a def Senghor ak Philippe le projet existait loolu moo dugal ñoom Moustapha Niass ci politique ni ñuy waxee tey ay Karim Boys noonu la ñoom Moustapha Niass nekkoon ay Karim Boys ñun dañ ko lii dañ ko dund daan ko dénoncé ci jamono jooju di ko dund du loo xam ne dafa ñëw am d'ailleurs boo demee ci livre Ablaye Wade bi ci ci livre Abdou Diouf bi mi ngi wax ne ba mu tasee ak euh, ak Senghor ci euh, Toronto je pense euh, ci ci sommet sommet francophonie bi mu ngi koy wax naan kon na nga moytu Jean Collin saay-saay bu mag la baat saay-saay la ko utiliser bi mu ko waxee foofu am na wax joo xam ne waxoon nañ ko yaakaar naa moom lay junj ne accident bi am fii ci yooni aéroport bi que luñ fexe la waaye xale bi duwul ne dafa ñëw rek heurté benn kii daa daal di fa daal bakkanam des fa waaye fekkoon na lu ñu doon préparer la damay bugg a wax ne préparé boobu dem dem naa ci ba ne sax euh, métissage culturel bi Senghor daan wax dafa doon nëbb benn métissage biologique boo xam ne moo nekk ci gannaawam te métissage biologique boobu war a jur son remplaçant donc moo tax man damay wax ne je suis aérien li nga li Moustapha Fall ci indi léegi ne ah euh, Moustapha Niass du moromu Idrissa muy taxaw di ko wax Moustapha Niass kan mooy moroomam Fidel Castro mu taxaw di ko ñàkke teggin ci diggu Kiba ah boobu kan moo ko yebbaloon en tant que ministre des affaires étrangères mu uuteeg protocole uuteeg yëpp c'est-à-dire yu yu bëri ñaar yéen bu ngeen ko wax vous parlez de mille à nos jours mais ñun yii dañ koo dundoon en tant que ay militants ak Thié bien sûr Moustapha Thié ñii ñoo ko bokkoon di dund di ko suivre benn par benn ni ni ni ni ni maam Biram defee tey pour jël événement yi noonu lañ jëlee woon ñun tam yooyu. jël suñuy coupure journaux di di suivre di seet ñi ñu amee lan lañ jëm ak fan la ñu jëmee donc dama bugg njëkk wax ne euh, théorie du complot mënta nekk loo xam ne dañuy wax ne le comploteur c'est Ablaye Wade Ablaye Wade il a trouvé un système et benn bis recevoir na ma ma doon ko wax ne ko est-ce que xeex bi wartoon a nekk indépendance d'abord et le développement ensuite puisque nous ne sommes pas indépendants mu ne ma man li mu mosoon a gëm mooy su may jouer à Abidjan dama koy jouer ba mën cee gagner waaye nag li nga wax dem naa ba ci biir net li ma yu bëree bëri yu jëm ci théorie bi euh, li ma ko wax indépendance bi ak ni mu gisee ne effectivement ñàkk euh, indépendance gu mat googu tax na ba fi ñu waroon a yegg mënuñ fee yegg mais li am solo li ma bëgg a wax mooy ni inventé wul dara nii ak doomam nii ak ànd ak nit ba mu yàgg nga daal di ko teggi daal di indi keneen mën nañ ko tuddee yaa trahir wala moo la trahir wala kan moo trahir boppam en tout cas politique bu bindoo noonu suñ ko gisee ci ñoom ñëpp dañ ko ci gis euh, Moustapha Fall Thié nee na euh, diggante Senghor ak euh, Mamadou Diano jatara moo ko wax xëy na la mu waroon a kii walla kële def na mais loolu itam nettleewuñ ko waxuñ ne dafa def waxuñ ne dafa dafa doon def li ñuy wax mooy qui veut noyer son chien l'accuse de bu boobaa fekkoon na en manœuvre politique yooyu amoon na amoon na auprès des marabouts amoon na auprès du syndicat amoon na au auprès de tout le monde pour présenter ko comme koo xam ne fii mu toll moom laa la wax ne la Mamadou Dia bi mu ñëwee bu poser problème bi Jean Collin boobu xamoon nañ ne yëf yi yàqu na ci la ko ni j'aime pas les mu Mamadou Dia ci boppam moo koy bind di ko expliquer donc c'est des chose yoo xam ne balaa nga xam ne ñu lay jëfandikoo peut-être day fekk nga jëf waaw waaw nga ma ci biir mm-hmm. man lu mel noonu dal na ma benn bis ma taseeg Moustapha Niass makk biñ tasee makk ma koy wax naan ko woy mais ak Iran yaa y a des projets qui existaient yoo xam ne intérêt Sénégal la te dañ ci war a dox te man euh, ak entrée ma fa am Sénégal ma tax a jóg na ma non yooyu war nga koo bàyyi nangam ak nangam ma génne ma ni ji Moustapha de déconnecté nañ ko yëgatul puisque man fekk na waxtaan naa ci ak di Diouf fekk na gis na ne vraiment yow mi dañoo bugg nag li ñu mën a jëriñoo li réew mi mën a jëriñoo nga dox ci waaye moo tax bi mu ñëwee bi mu wàccee rek bett ma ma ne ah kon kii daw fekkoon niti politique bi ci boppam un premier ministre mun naa ànd ak yow tey ngeen di wax te fekk yëgatul xamatul comme ni ngay amee sa sa connexion di déconnecté ñoom itam daf leen dal moo tax yii léeg-léeg sax nit di ko nettali ñu ne yu kii de il est bien informé c'est un ancien président par exemple wala un ancien premier ministre keroog bañ ko teggee am na yu bëri rëcc na ko yi passé nag mun na koo am comme passé am na élément yoo xam ne gën a leeraat ci boppam yoo xam ne ba mu ci toogee di ko def moo tax nit politique boo dem mi ngi rëccu su doon tey duma def nangam ndeke bi ñu may def loolu lii yow ndekk bi ñu may kii ci sa kaw nii lañ ma la présenté woon dossier yi nii lañ ko présenté woon donc point boobu dafa bokk itam ci yoo xam ne bugg naa ci léegi euh, on a parlé du Qatar ak nangami Qatar mais nu mu tuuti euh, la lettre du continent yemul ci Qatar wax na ni ñi ci yëgoon ñu ci seedaloon que itam c'est des kii politique wax naa leen ne Ablaye Wade la taxoon mu ne George Bush ak euh, euh, nu mu tëddee euh, bongo gënuñ ma mus bongo bongo bi muy génn àddina boobu fekk na toogal fi doomam. te fekk na classe politique ba pare wu ñoon pour doom bi ñoo ko gënoon a jékku demoon nañu ba taxaw waaye bi nga xamee ne le président congolais. Sassou Nguesso bi nga xam ne Sassou si ñoo na bi mu ñëwee moo leen wan ne yëf yi fii la war a jaar donc lu ñuy seedeloo ay réew la lu ay réew. di kii waaye du loo xam ne dañuy ñëw rek ñaari nit yëpp mu toog ci saal ba mu lay wax nga koy wax mais lu ci nekk c'est bien ficelé léegi nag ni ñu koy déroulé ak ci temps bi wax nañ ci gannaaw ne euh, jatra euh, wax na ko nee na di dafa am lu bett Ablaye wàdd ndax Ousmane Tanor ji ak Moustapha Niass euh, dugg nañ ci diggante bi bu boobaa nag looloo tax ñi jàpp Karim jàppaay bi man jàppuma loolu jàpp naa ne Moustapha ci boppam xam na lan mooy jeu yàgg na ko joué yàgg na ko joué ak Senghor maa ngi koy wax ci sama livre bi expliqué naa étape par étape expliqué naa euh, bi nga xam ne moom lañ géré loon dossier boo xam ne ay doomi sëriñ def ci nekk expliqué naa ko ci biir ak yoo xam ne nu mu tëddati euh, euh, opposant bu ñu war a légaliser mu nekk opposition bi muy tànnal boppam dóor mu fii lay doon mu tudd contribution ak ñaar ñoo xam ne ñoo ko xëccoo pour dauphinat bi mu nekkoon Euh, Babacar Ba yàlla na ko yàlla yërëm ak Abdou Diouf ak ni ki nga xam ne Moustapha Niass mooy jógee ànd ak Senghor mu jóge vacances soxna Dieng moo koy interviewé bi mu ñëwee euh, fekk Moustapha Niass ñëw na ak résolution bi war a ñëw ñu dégagé. Babacar Ba pour war a jël kii donc. pour wax ne ci jamono peut-être comme ni ko Yankho ba waxee ci Idrissa. il était un acteur war a jouer rôle jël bu war a jouer rôle nekk na ko xam peut-être dossier bii mu judd Karim Wade gan la ci mën na ko ci am na loolu loo xam mën na ko ci. man yaakaar naa ne am na yum ci xam du tere nag am na ay jukkoom am na lu mu bëgg am na ay compétence am euh, yuñ ko mun di waxal xam na xaalis ak fu muy duggee nu muy génneek Euh, ne comptable la boo xam ne ci cabinet yi gën a mag lañ ko formé xam na lan mooy yii yëpp ñu koy bëgg a jaare li ñu ko ci bëgg a jaare itam li mu leen di tegal waxtu woo delloo ci moom wax yu dëgër la dégg yàlla may na ko itam formulation yu dëgër boole ay culture yoo xam ne bokkul waaye du tere politique nag nekk politique man moo tax damay teg entre ñaar moo tax man ne jàpp leen ne toujours je suis aérien jàpp leen ne toujours je parle ci ay idée ay idéal ci laay nekk que gannaaw ci loolu laa si souscrire kon ci laay continuer dama jàpp ne dafa am ñaar am na nu mu tuuti wax nga ko léegi nga xam ne yépp teg nañ ko ci intelligent euh, malin malin et demi ak beneen boo xam ne man moom laay tuddee laa guidance alquran di ko wax walladina jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana am na ñoo xam ne jébbal nañ seeni mbir yàlla danañ leen fexeel mais léeg-léeg ñu gis aw yoon woo xam ne fooguñoon ne sax yoon wi existé na ñaari yoon am na système bi ñu nekk nag muy le système occidental ak démocratie bi nga xam ne taxaw na incarné ko que ça soit au Sénégal ou ailleurs que ça soit dañuy on parle du passé ou on parle du présent suñ demoon même l'époque coloniale démocratie bi ñu wax moo fi amoon diggante Carpok euh, euh, Blaise ñi tox taxaw di jotee dëkk bi di ci tas xar mu ñuul bi mbëkk na xar daan na xar mu weex bi fii la nekkoon donc yii yëpp mësutoon a dëñ te ci biir loolu soo ci delluwaatee moo tax bi ma toogee ba ci bind dama dem ba ci Assane Seck en tant que professeur d'histoire yooyu yëpp mu évoqué ko soo ñëwee ci livre bu ngeen da gis ne évoqué na jote yi li ngeen doon wax léegi euh, ba wax dalal jàmm beeg yooyu yëpp ak lu ko indi Assane Seck nga ko expliqué ci biir avant propos bi donc ci biir avant propos bi euh, avant muy génn àddina dem ci yàlla demoon naa ba gis ko yu bëree bari préparé nañ ko mi ngi ci biir donc yooyu yëpp dama bëgg wax ne am na lu am ci réew mi moom même mi ngi doxee doxe bi yëgoo mi ngi ba baareegoo mi ngi doxee doxe yooyu askan wi nag lay bett ndax léeg-léeg ñu ne ah ndeke lii am na ci ah kay mënu cee ñàkk am ndax système bi moo ni bindoo système bi moo ni bindoo donc damay bañ rek ñu dëkkale ko ci ab lay Wade wala dëkkale ko ci Karim wala dëkkale ko ci Macky wala bugg cee seppi keneen c'est normal nag que ku hmm. nekk prêcher pour pour pour chapelam hmm. kooku c'est normal puisque ci loolu lañ nekk ça ne veut pas dire itam ne dañoo nekk ñu bono bon bon ba nga xam ne dañ leen a war a sànni ñu bon lañ dañ leen sànni ni ko ñeneen ñi di waxee loolu laay tuddee la complot permanent hmm. koo gisati rek ne noonu la koo gisati rek ne baaxul waaye da xam ne c'est système système boobu nag mun nga cee bañ a bokk waaye mun nga wax nag ni danaa ko observer danaa ci moytu danaa ci dem ba mu bokk nag waxtu wu amee bu ñëwee danaa ci participer je pense c'est autour de ça d'accord Moussa Faltier ci système boobu nga xam noonu lay doxee ñu gis na fi tey euh, tey transhumance dekkilaat nañ ko ba nangu ko euh, tey phagocytose ñëw na am na leader yoo xamante ne tey presque ñu war a défendre APR sax à la place de la l'APR biir Benno Bokk Yaakaar gis nañ ni ba léegi am na coow fa am mais dialogue national nag dafa ñëw mu ñu woote ko mu mel ni njabooti libéral retrouvé wu nañ seen taxawaay ci biir foofu ndax yéen a ngi koy surveiller parce que yaa ngi continuer di défendre ne liste bi dina ñëw waaye ñu bëri ci Sénégal yi ci 14 millions yaakaartuñ ne liste 25 yooyu dinañ ci dégluwaat en tout cas pour man liste bi dina ñëw parce que dafa war a ñëw sëgam tuddoon nañ leen si. waaye man xam naa itam ne tudd nit taxul mu yegg ba sa kër ba. parce que yaa ngi njëkkee si gendarme yi. mën ngaa bañ a yegg si juge yi si. procureur euh, léegi nag retrouvaille euh, libéral yi ça ne me gêne man xam nga man dama nekk nit koo xam ne euh, je n'aime pas la rupture sur tous les plans rupture mosuma koo bëgg donc du ma gisee ay nit ñu déchiré woon tàggala ko ne dañuy retrouver waat ça ne me dérange pas du tout parce que man ba may xeex Ablaye ba may xeex libéraux yi boobu ñoom ñëpp a ànd Ablaye Wade Idrissa. Euh, euh, le jeune ah. Gadio Souleymane ñoom ñëpp Gadio Macky Sall ñëpp. bloc boobu yëpp laa daan xeex man. Mhm. maa njëkk a wax Macky Sall boobu sax je aw moom benn relation mais dëgg rek laa doon wax bi ñu koy commencé di ko bundu ma ne ko na génn créer parti bi le parti c'est la défense d'un homme politique benn sorti bu ma doon def Walfadjri. avec la petite la kii Ndiaye. Euh, Ndeye Ndiaye xaw ma. ma mm-hmm. ah, madame Mbacke. Mm-hmm. mu fekk ma fële. Ndeye Fatou su ma ay toog nii si sorti bi. falaa ne Ndeye Fatou Idrissa euh, Macky Sall mii mu ne mbaa bu yaakaaroon dina mujj delluwaat si Idrissa Seck si Karim comme eh, si. Wade comme ma ne ko du dem. kii xale la bu am jom te tukulóor la am na lu muy sàmm ñoom ma ne ko gis nga Macky sàll mii bés bu créé parti élection présidentielle bu mu njëkk a dem dina ko gagné ça mi ngi donc seen li seen seen euh, comment dire seen retrouvaille ne me gêne pas s'il se retrouve et recommence à faire ce qu'il faisait je les combats kooku amul benn problème mais nag ça ne me dérange kon bokkoo ci ñëpp ne day. tàngal fauteuil wala transition euh, aussi li ma ko si reproché mooy il n'avait pas à théoriser sur la transhumance. Senghor dañ daan transhumé moo ko njëkk a indi fii day jël fas kanamam téen téen du ci boole wax Ablaye Wade day jël fas kanamam téen pourquoi moom itam ab du ju la même chose pourquoi moom itam du jëlee du fas kanamam téen fekk dafa am lu ko jiitu woon ci kàddoom ne ku ñëw xanaa ci ginnaaw ngay taxaw parce que loolu duñ ko nangu. peut-être il fallait man ne ci njëkk mu avant muy nekk président. dafa waxoon ne moom nanguwul transhumance bugg ko ku ñëw itam xanaa da ngay taxaw ca gannaaw ca rang ba. bi ko loolu dabee il fallait aussi mu justifier ah ko balaa mu ko mën xam nga hmm. transhumance yi danger bi mooy soo leen jëlee bëgg leen teg nag si kanam mu ñax xeexoon xeex bi loolu moom c'est frustrant mais nag la politique c'est la science des libertés on n'interdit pas en politique man sama parti APR si Lamine bii du ne woon daf si bëgg a dugg te neexuma te mënuma ko aay on n'interdit pas en politique du si duggee nag ba violé statut mën naa koo dàq mais damay dugg sabab maa kooku c'est c'est c'est c'est plus qu'un délit en politique on intéresse c'est la science des libertés ba tax na transhumance yi man boobu problème rek laa bëgg ñu def ci attention mu bañ a doon source de frustration si ñi fi nekkoon mais en dehors de ça la politique c'est là de modifier les rapports de force on compte par milliers on compte pas par unité la carte de membre la carte de de d'électeur n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de de morale carte sàcc bi carte prostituée bi carte sëriñ bi carte euh, footballeur bi benn valeur lañ am suñ demee si urne bi donc soo soytee foofu sur ce rapport là ku ñëw sa parti di nga ko jël parce que yaa ngi jiital sa élection. mais bu fekkee li nga yor doyul ba say waa ñu ngi xeexoo par exemple yéen Macky 2012 mu doon ngeen tas ba def ñaari groupe bu fekkee ñeneen ñëwaat nañ encore bëgg faa lekk ay privilèges. mais non non c'est rien du tout ñun ay alliés lañ dañ koy dimbale si li mu bëgg. suñ joxe bañ ñoo jox man de man seetuma si moom ay jox lii mu ma jox mosuma ko koo laaj jox na ma ko lu ma un mois yëguma ko man jooy toppatoo ma yooyu man man je sais vivre et je sais avoir bi ma koy uy si Mercedes élégance la déparé kaw la uy si ko man je ne suis pas un un un arriviste ba tax na yooyu dérangé wu ma lii wóor ba wóor mooy ku ko topp pour ay intérêt su la joxul di xeex ku ko topp nag parce que da nga xamoon da nga gisoon ne cause bi bi mu doon def cause bu juste la nga di ko si jàppale ce qui était mon cas kooku man ça ne me suy jox kii ak su bañ jox kii hmm. mais je dois venir à, euh, euh, si protocole de Doha ak de Rebeuss de Rebeuss hmm. euh, xam nga Macky Sall di dit récemment bi ñu koy wax si protocole mu ne ça ne l'intéresse pas ça n'a aucune espèce d'importance pour le pays hmm. il a parfaitement raison ça n'a aucune valeur d'importance ce qui reste du protocole de Rebeuss mais pro protocole de Rebeuss lan la woon Idy ñaata chef d'accusation lañ ko accusé woon bi ñu ko bëggee jàpp te jotagun sax yenn éléments yi dañ ne bëreet ne ko atteinte à la défense nationale et à la sûreté de l'État keroog loolu lañ ko yóbboo mu fanaani camp camp camp fële Rebeuss loolu lañ ko jëkk a dóor sa suba sax nag ñu soog a génne dérapage financier sur les chantiers de Thiès. usurpation de titre détournement sur sur sur sur deniers publics portant sur fonds fonds politiques quatre chefs d'accusation le tout moom lañ doon traité ci protocole de Rebeuss bi ñu waxantee seen wax parce que Ablaye Wade la ko intéressé woon ci yépp mooy xaalis bi bi mu joxoon Idrissa sa te bëggoon koo jël moo tax bi ko Idy ne d'accord naa pour joxe par tranche mais lii nga wax défense contre euh, sur euh, euh, atteinte à la défense nationale yooyu nañ ko dindi mu ne dindi naa ko mu ne ko les chantiers de Thiès ay surfacturation la moo di moo ko yóbbu de de de de vingt de vingt cinq milliards à quarante six milliards mooy vingt un milliards yooyu ñuy wax mu ne loolu man defuma ko su amee fournisseurs yee ko def ak entrepreneur yi te muy dëgg même su ko bénéficier woon moom Idi sax mm-hmm. defu ko fournisseurs yi ñoo ko def. mbala entrepreneur ñu élagué loolu mu des ñaari yi de titre mm-hmm. ñu dindi ko mu dee fa nag détournement de deniers publics portant sur fonds politique moo tax ñu ne ce qui reste c'est un non-lieu partiel mm-hmm. c'est partiel parce qu'il reste un grief bu laalagul boobu rekk si des te boobu moo indi coow li coow li moo tax mais boobu indi Idrissa Seck tooñu Sénégal xaalis boobu man dégg naa Idrissa Seck mu wax si rajo ne ma maa ko jël jox naa si diw jox naa si suma chauffeur jox naa si suma cuisinier loolu maa ko dégg mosu ko nii mosu ko nii non. waaw yaa ngi jël hmm? xaaral ma jox la dem rek. loolu su loolu yi mën nanoo génnee archive man aw ma archive mais ñi mën nañu koo génne. pour àtte. je ne le fais pas pour je ne le dis pas pour toi mais je le dis pour pour les Sénégalais pour l'histoire man dama ko dégg du ma ko dégguloon du ma nee naa la xaalis boobu ça ne nous intéresse pas nous Sénégalais ça n'a aucune espèce d'importance pourquoi. les fonds politiques d'ailleurs à l'époque tontu naa si Idrissa Seck bi mu nee. fonds politique la kenn du ko contrôler am amul lii am ma ne ko si fonds politique c'est vrai que kenn du ko contrôler mais ka ko ka ko ka ko yelloo ban jox ko ko kooku lan du contrôler mais ki ko yelloo ban jox la ko. mu dénk la lii ne teel ma lii doo lu luubalee loolu. am nga droit rendre compte kala ko joxoon. moo tax tey jii suñ demoon si protocole de Rëbb ba def jugement be yooyu yëpp xaw ma nu mu sa jugement lañ koy xaw ma nu mu koy def. Mm-hmm. mais xaalis bi du ko Idrissa génnee woon tam du ñëw si Sénégal c'est poche Ablaye Wade leen. Mm-hmm. moo ko moomoon. moom lañ ko joxoon moom lañ ko joxoon. moo tax Macky Sall ne ça n'a aucune espèce d'importance c'est vrai amalul réew benn importance jaru ko. mais Idrissa ne nañ ko leeral benn yoon. comme buntu la parce que moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy tuumaal. homme la. suñ taxawee fee Samuel Sarr di ko wax la. di ko traité de bâtard comme li mu traité de bâtard ñeneen ñi. mu ne jury d'honneur lay wootee jury d'honneur c'est rien du tout euh, Ousmane. la le jury d'honneur n'a aucune valeur juridique. ci li dënër moral la quoi. pour te libérer moralement rek. la ci mais du moom kay suñ koy dem nan dem nan dem nan dem nan dem si juridiction yi. haute cour yi ak yooyu. waaw nan dem si non non si dans dem haute cour de justice. xam nga bu ñu ne euh, si si constitution ñu ne les ministres sont euh, par la. exercer xam nga lan la. Mm-hmm. là c' est quand pourquoi créer suñu lay jàpp contre enrichissement illicite. Mm-hmm. duñ la yóbbu duñ la yóbbu duñ la yóbbu haute cour hmm. tey jii ministre yu nekk en fonction ku si defoon délit yooyu da ngay dem haute cour en justice pourquoi hmm. parce que tu bénéficies d'immunité et de privilège de juridiction hmm. dans la loi 81 54 article 7 dafa ne si le délit concerne des personnes bénéficiant d'immunité et de privilèges de juridiction, le procureur spécial transmet le dossier à la juridiction compétente. attention nañ dégg tubaab mbala ñuy tey bañ na dégguñ tubaab. bénéficiaire mooy lan. une personne bénéficiaire moo ko ku ko am léegi ci jamono yooyu présentement. waaw Karim Wade bi ñu koy topp amatul woon di euh, bénéficier woon euh, immunité ni euh, privilège de juridiction. dañ ne bénéficiaire pas ki bénéficier si on avait écrit bu fekkee bi muy commettre ca jamono yooyu nekk na aussi ministre war nañ ko delluwaat foofu ci jamono yooyu haute cour lay dem hmm. si tu bénéfices présentement hmm. haute cour nga jëm si tu n'en bénéfices pas doo dem haute cour mais bu fekkente ne yow benn nekkatoo ministre mais ca jamono yooyu ngay def jëye ji ministre nga war nañ dellu moom loolu moom c'est valable pour les délits les délits les délits à la gestion et non non délit ordinaire pas délit Euh, extraordinaire délit pénal bu mhm. concernant la CREI parce que pourquoi pas mhm. pourquoi parce que parce que waaw tey débat juridique waaw parce que non non parce que boobu boobu aussi problème la woon non pourquoi mhm. loolu parce que fii si CREI yi CREI yi moo bind loi bee bind du lu ñuy tàndale loi bi moo ne si la personne bénéficie la personne ne bénéficie plus. mais délit bi moo moo moo moo moo dellu ci ba muy ah, bénéficier délit bi moo dellu ci jamono ba mu doon bénéficier daf ko mm-hmm. defoon en tant que bénéficiaire de nangam. bu fekkee dañ ko koy àtte dans cent ans itam. dañuy delluwaat ci jamono le délit le délit est constitutif le jour où l'on te présente. dañuy delluwaat ci problème. ci débat ah non non attends su ko defee non non non juriste ci seen bopp mun nañoo uute toujours ci ay points. yu non non man daal ma si wax loola laay wax. te li ma si wax du tey laa ko wax. d'accord te du ma dégg kenn ku ma wetti. Mhm. d'accord je di la vérité en ce qui concerne les les juridictions. quand tu bénéficies de privilèges ou d'immunité. Mhm. si tu es ministre haute cour lañ lay yóbbu. soo doo doonoon ministre te bénéficier tooti mhm. doo defee délit bi ñu ngi lay yóbbu. d'accord euh, Yankhoba Diattara. parce que tey le dernier cas bi pour. Euh, Yankhoba Diattara le cas. protocole de Doha xam nga lii yëpp Idrissa Seck moo ko indi moo fi indi ay deal mais tontu naa ko deal du dara deal en lui-même du dara si di qu'est-ce qu'un deal jaay <laughs> ak drogue <laughs> mooy jeex mooy parce que. boo ah. <laughs> boo nee boo ah, ah, xam nga boo boo nee dil du dara dellu nga ci baatu anglais bi wax ne. ngeen déggoo mais nag boo ko indee. ci maa ngi ñëw Ousmane li ma bëgg jamono bi. waaw maa ngi mel ni moom baara yëgoo. man maa koy waxal sama bopp. maintenant nag il faut qualifier le deal. sens étymologique. Eh ak sens non non il dit euh, il faut euh. qualifier le deal. si ils ont fait un mauvais deal il faut dire qu'ils ont fait. Mm. le deal healer qu'ils ont fait. non le, le moom mu positif moom ci jamono ji ñu nekk ni waaw parce que boo ne tey. parce que euh, au sens au sens figuré def. Hmm? waaw parce que day connecté dafa chargé voilà mu ngoog. bon moo tax sax ñu jóg yaakaar naa on se demande. même maam wax na ko si livre bi. pourquoi ñu libérer Karim guddi. ak la ca ànd yëpp daal. mais loolu et puis le passeport duñ koy defar passeport duñ ko defaree passeport ci prison le dernier passeport de Kariba c'est un passeport diplomatique du ñuy dem affaire étrangère defar ko fa sur ça sur ça si jarul nga koy dem prison da nga koy defar ba wala dem dugg prison jox ko ko donc il faut que waxin la rek waaw nan bàyyi waxin yooyu nag mooy yàq bopp nit ñi waaw nee na non non wax ma ne yow yaa ko d'accord maanaam euh, kii moo ko wax maanaam yëf yëpp gaaw na rapide na lëndëm na nee na lu ah. tax mënul leer daal moo xaw a léegi hmm? léegi léegi noonu lañ génnee Karim Idi nun ko génne hmm. Idi Seck bi ñu koy génnee nan lañ ko génne match de football hmm? non c'est plus grave yeggali à une minute du coup d'envoi vingt-cinquième coupe d'Afrique des nations Sénégal contre Égypte à une minute du coup d'envoi nga xam ne ñëpp nga stade ñi si def ñi gis télévision mbedd mi kenn nekku si ñu génnee Idrissa Seck mu dem kon lépp dañ ko planifié woon. attends attendez attendez loolu du fekkee loolu du <laughs> fekkee loolu dil ah, la bon avant may daan cité Idrissa Seck parce que temps yii dugg si woon si bi. kaawu ma dem ba sook laa doon joxe ma dem ba soog bu ñu koy libéré digg ba bëccëg ñoom ñoom Fidel Castro ñëpp taxaw si buntu buntu camp bu mag bi ñëpp taxaw di ko nëkk ñu jaarale ko buntu sa gannaaw mu dam ñibbi këram bàyyi fa gaay donc état responsabilité yow imaginer Karim Wade tey ku ko bàyyoon ne ko demal Touba tout ce qui peut arriver tout ce doo moytu balaa yegg Touba sax mu guddi et la nuit. tout est possible Karim Wade c'est vrai am na ñu ko bëgg mais am na ñu ko bañ moo tax état buy organiser ni muy régler kotam mais Macky Sall mu appuyer sur constitution sénégalaise gracier Karim Wade où est le ba avant ñuy jàpp Karim mm-hmm. nit ñaa ngi def intervention mm-hmm. ku dul doa sax a def intervention. d'accord ah, beneen débat la. ok ah, léegi non non damay leeral rek. parce que waaw débat yi bëri na angle moom bëri na. Ah, léegi nee na bu ñu ko gracier lu tax kon ñu boole ko ay conditions. boobu benn bi la pour ba Diattara mais aussi ci wàllu Idrissa Seck parce que ba léegi Moustapha Fall ci préciser na ne non-lieu partiel la ci am te mu ngi ciy sàkku itam seetal ko. ci mu mel ni tëb na dal ci xal mais des na ko beneen tëbin. pour mu mën non xaw a am na confusion yu bëri malheureusement yu mu indi. tout rek ci affaire CREI bi ak haute cour am na fu bëri foo xam daf ci patiner. j'ai euh, compris moi. non waaw dont de gens quand même tonton xaw nga ci. Ah. j'ai compris. c'est bien j'ai compris yow sama nga. yàq suma débat. Ah, moom itam nga yàq débat am kon. Ah. <laughs> sant yàlla alhamdulilah. Mhm. mais quand même bëggoon naa apporter quelques précisions par rapport à l'intervention de Sidi. Mm-hmm. li mu wax ni en fait ci fonds politique yi. Mm-hmm. entre Idrissa ak Ablaye Wade loolu mooy origine seen. Euh, contentieux c'est vrai ñu bëri ñu ngi koy wax. Mm-hmm. et defe naa ni loolu aussi xam nga li muy poser comme euh, débat mooy comment euh, euh, la justice sénégalaise a été manipulée instrumentalisée peut-être kon pour dugg ci loo xam ni c'est un problème purement politique. entre deux hommes politiques qui n'a rien à voir avec les institutions ndax tey soo ne Idrissa Seck li ñu ko accusé woon bi ñu koy jàpp li tout est parti des chantiers de Thiès pour Abdoulaye Wade noonu la ko waxee noonu la ko ca foire ba ca nga ca foire ba ci juillet dama koy moo dem sama jiba ni ko jëlal multi mu nga mu ni foofu la départ chantier de Thiès mais ku xam état ni muy doxee man de tout temps je l'ai dit man ni même c'est manque de respect à l'État aux institutions aux fonctionnaires de l'État de dire que Idrissa Seck dafa détourner xaalis ci chantier de Thiès ndax ko xam état da muy doxee xam comment ça marche xam ni en principe un ministre de la même futur premier ministre warul am accès à des deniers publics astamank nag naan da ngay na xaalis donc c'est pas possible deuxièmement les euh, corps de contrôle yi ko yi audité woon chantier de Thiès mais ñoom la Ablaye njëkk a porte préjudice moo tax seen crédibilité finalement dafa ndax ñoom la utiliser ne leen dem leen ñu ñëw auditer mais ñoom rapport boobu la ab la déclassifié woon ma Macky Sall la jël ko dem rapport les diplomates. IGE rapport IGE pour mën a mën naa ni institutionnaliser même internationaliser li ñu doon wax l'affaire de chantier de Thiès loolu lépp vraiment pour pour tuer un adversaire politique. deuxième ak li mu avoué Moustapha ne avoué na ne jël na fonds politique. non j'en j'en viens j'en viendrai tout à l'heure mais du demul noonu beneen bi mooy. Euh, mbiru justice xam nga magistrat yi temps yi suñu naan il faut plus d'indépendance di révolté wu mais la justice a été manipulée également dans le cadre de l'affaire de chantier de Thiès su fekkee ne Abdoulaye Wade a un contentieux avec Idrissa Seck sur le plan de la gestion des fonds politiques Abdoulaye Wade aurait dû pouvoir le régler autrement mais loolu Abdoulaye Wade mooy doon président de la République yow nga am peut-être supposé contentieux avec ce ancien directeur de cabinet ancien premier sur des fonds politiques yoo xam ni mun naa ni dont la, la la la gouvernance pose problème au Sénégal je suis d'accord sur le principe mais loolu am na lu ci Idrissa proposé mais ñun li nga xam ne ñun moom lañ jàpp te d'ailleurs il faut que les Sénégalais euh, quand même soient édifiés sur cette question Idrissa moo njëkk ni moo njëkk ni Ablaye Wade na déclassifier l'affaire des fonds politiques mu génneel ko ni mu ko gérer fonds politiques de mille à 2003 2004 ndax aussi nañu fàttaliku que Abdoulaye Idriss Seck li mu géré fonds politique koy wàññi Idriss en 2000 avec Wade fonds politique 600 millions la ñu une partie commencé nañ ko sax consommé ak Tanor 600 millions lañ déparé Abdoulaye Wade de 2000 bi Idrissa demee ak 2012 60 milliards la doon géré de fonds politique par an 60 milliards la doon voté 60 milliards je dis bien la Abdoulaye mujj yóbbu fonds politique a des gens qui sur les fonds politiques. Macky Sall la ak ay Souleymane Ndéné Ndiaye ndax ñoom ak ñoo fa desoon nag Ablaye Wade ba Ablaye di extrapolé di yóbbu ndax wax naa leen sànq ne leen Ablaye dafa am ay doxalin yu mu doon am Idrissa Seck da ci doon opposé wu. les fonds politique avaient atteint sous Wade 60 milliards de francs CFA un état boo xam ni 2 milliards ngay dépenser par jour fonds politique uniquement sous Wade la am te loolu c'est Macky Sall qui son premier ministre. Souleymane Ndéné peut-être même Hadjibou Soumaré dans une moindre mesure qui n'était pas politique. kon looloo tax ñi ma woon mu génn wala. non non non du loolu. beneen bi mooy Idriss dafa ni man lépp lu ma lay Ablaye Wade jox ci fonds politique géré naa ko noo xam ni dama ci bàyyi tras ñun ñi jegoon Idriss Seck ñun dafa am loo xam ni dafa ñu yéemoon ci Idriss Idriss moo doon ko xam ni même su lay jox dërëm da nga koy signal kayit ndax Idriss Seck comptable la nag auditeur la dafa recruter woon koo xam ni kii yam liggéeyam moo doon uniquement comptabilité ndax nee na da doon toog ba jàgg rek wàdd woo ko ne ko fais-moi le point sur les fonds politiques mu génne ko ndax wàdd moo mel noonu il est imprévisible mais Idrissa xamoon na kan mooy Ablaye Wade te ci loolu la ko yàlla suturaal mais Sidy Lamine nan lay nit nekk ak yow nga ne président de la république am tous les outils. xam nga un président de la république n'est pas euh, comme n'importe qui. tey Sidy mu bëggoon ci biir Walfadjri bi da koy am. Mm-hmm. mais un président de la république. Mm-hmm. nga défier ko. depuis ni ko wan ma preuve bi gën a ndaw que détourné naa sa fonds politique bu gën a ndaw munoo ko génn ba nga jóge fi mais ku wax loolu défier un président de la République boobu ba léegi Abdoulaye Wade amul bu mu mën a wane mais kooku defe naa ni quand même war nañ ko ah, ni beneen kon ah, mhm. mhm. beneen bi mooy Idriss Seck masul wax ni damaa détourné fonds politique dama ko jël dafa ni fonds politique yi yi ko Abdoulaye Wade joxoon réglé na ci les problème yi nga xam moom la ko nit ñi doon soumettre aussi bien du côté de ces du, du parti du PDS que des autres Sénégalais yi ko yàlla boole la te dama mu ni Abdoulaye su ko ko déclassifié mu génneel ko. non non du tout. waaw non non non non non tonton encore may ma tuuti. encore ñu ah. nekk ci dossier bi ku mel ni Colonel Cissé nee na jël delloo moom am na ci seen. diggante non non non non mais dafa ndànk. Hmm. xam nga mooy yow tamit boobu ba léegi ñu ngi wax ñoom Colonel Cissé xam nga ñooñu moom duñu ay référence sax hmm. mais dama ni ñooñu. depuis lors fan lañu est-ce que mën wan nañ def benn preuve gën a ndaw wala ne Idrissa moo ne dafa jël day dellu est-ce que delloo na Ablaye Wade lan la ko Idrissa jëlal bay delloo xam nga bi Idrissa wàccee Ablaye Wade dafa àndoon dafa jëloon benn délégation yónnee leen Touba pour ñu dem seeti Sëñ Sall bi bi ñu wàccee Idrissa Seck mu boole koog euh, Ndeye Sakho mooy jarbaatam bu jigéen mhm. les anciens ñëpp ñu dem ñu dem ziar wàññeeku bi ñu ñëwee ci toog ci palais bi Idriss Seck aussi am na loo xam ne bëgg naa ko leeral bala may dem temps yooyu ba rappelé wu ngeen ndax Wade daf ko ak ka encadré woon pour mu dem wax ak kalifa yi ni ko way séparation bi nii la demee ndax coow li dafa bëri il fallait me wu ndax ñu ngi naan Wade ak Idi tout cela il faut ma wane ni moom mooy président de la République Idriss ne bala may dem bëgg naa leeral ci mbiru fonds politique lépp lu ma ci def dama ko bind kayit ci parti bi nii la demee ci nguur gi nii la demee ci kilifa diine yi nii la demee ci armée bi nii la demee ci magistrat yi nii la demee lépp daf ko bind ñun ñi doog na Idrissa ci xam nañu. mais loolu Ablaye Wade lu tax ba ko Idrissa waxee. Ablaye Wade déclassé wul Idrissa génne. wala ñoom ñu toog mu wan ko lépp ba mu leer. est-ce que déggaan nga fi Ablaye Wade di accuser Idrissa Seck naan ko ay danga ngaa jël foofu wala boo bëleeg delloo woon beneen bi. d'accord Idrissa Seck noonu la total la am ci ñaari dossiers yépp mm. dossier des chantiers de Thiès comme nu wax alibi woon. beneen bi. atteinte à la sûreté de l'État il fallait rek ñu takkal ko par jàpp ko loo xam nga dama ni. ngay wax ci fee yëpp am na fi. Ah, ñu fekk nañ lépp. Mhm. pour vous dire rek simplement que ni Ablaye Wade tooñee Idrissa Seck moom ak tooñee ko waa Thiès waa Sénégal ak justice bi mu ci yàq dafa bëri. d'accord loolu nag au lieu aujourd'hui Macky Sall ñëw. Mhm. nekk président de la République. Mhm. peut-être clôturer ko pour l'honneur du Sénégal. d'accord mais également. pour la pour classe politique bi sax. d'accord ndax affaire politique dafa intéresser loolu kan. ñun dañ doon sant yàlla bi procureur ne day réouvrir dossier. mais lu tax kon ñu dem ba ci biir Macky daan ni ça n'aide pas les Sénégalais tonton nan lay un président la République. Mhm. ñuy wax autant d' ñu naan c'est de l' argent du contribuable. c'est mais tonton mën na wax loolu non non non. mais tonton non ni loolu yëpp am na ci non non non parce que tonton. comme comme ay milliards daal da ngeen bëgg ñu leeral ko. ñu leeral ko parce que ñun tamit li ñu jàpp mhm. protocole de Rebeuss masul am. d'accord c'est une invention politique de Wade. léegi Sidi pour tuer un adversaire politique ku leen ko waxati rek porte leen ko plainte. d'accord. porter mais aussi le système kam tonton wax naa sànq. système euh, judiciaire Sénégal. Hmm. ñëpp gis nañu ni ko exécutif bi xawee naaj ba magistrat yi seen bopp di fipp. d'accord nan nga fi porter plainte. mais porter patron des magistrats c'est magistrat. a mais aujourd'hui Macky li mu def tonton pour mu leer. Mhm. mooy de laisser le procureur aller jusqu'au bout. te pare ngeen ci loolu. ñun pare nañ ci man léegi. Ah, waaw man ah, daal ci débat bi ça ne mm. bi daal man bind naa ci li jotele Wade ak Idrissa jël naa point par point indi naa maa ngi joxe rendez-vous ci sama livre bi ñëw. li nga mujjee wax nag lenn benn baat rek laa ci wax. Mm-hmm. li Idrissa tuddee jury d'honneur. Mm-hmm. Euh, Ablaye Wade tuddee ko ne nañu remonté yëf yi depuis 60. Mm-hmm. man dama bëggoon bu mënoon a am en tout cas ñu def. Euh, nobité ci comité de réconciliation et de vérité réew mi ku ci mosal kii li ko noonu dana recr dana crédibiliser waat le politicien et on en a besoin mm-hmm. su ko defee bu boobaa réew mi départaat beneen départ boo xam ne dana tax ba dootu fi am waaye nag féeg ñu ngi koy yemale ci Idrissa di ko yemale ci Karim di ko yemale ci diw du mun a sotti réew mi nag soxla na ko mm-hmm. ndax comme ni ma ko waxee wax nañu théorie Euh, di complot mais li ñu ci mën a génne yi yëpp mooy politique et éthique. politique et éthique nag dafa laaj ñi remonté waat yi yëpp. depuis 60 te li ko noonu dana mën a jëriñ te les dossiers sont là yii ngay wax ànd nangam ànd nangam tout existe. mais est-ce que y a une volonté politique pour ñu débattre ko wala Mame Birame euh, da nga bëgg wax peuple bi ne soyez prévenu ci question yu mel nii. waaw parce que man boo xoolee gëstu bu ma def euh, j'ai nu mu tuddati deux mille. jusqu'à maintenant. Mm. donc vraiment tous les grands. événements marquants de la vie politique sénégalaise décortiné naa ko am na éléments yu bëri yoo xamante ni joxe naa ko ci. donc j' espère que nu mu ñi nga xamante ni dinañu lire livre bi na ci am nu mu durati. lecture bu gën a leen faciliter ñu comprendre vraiment. ce qui se passe vraiment ci espace politique. d' accord livre bi am na Walfadjri pour ñu intéressé. ngay fay service commercial xam nga <laughs> mosut la cay jeex na. waaw rapidement damay féliciter maam rek. d'accord ak yeneen nag yu mel noonu bind rek ñu ngi lay gërëm di la sant Moussa Balti ñu ngi lay gërëm di la sant Sidi Lamine Niass maa ngi lay gërëm di sant <laughs> Mame Biram Waaj di gërëm di sant euh, Modou Diouf ay Diagne ak Mame Sidi Diop ak Aliou ñu géré woon régie bi di gërëm di sant bu baax Oustaz Assane Diouf mi ñu réalisé émission bi ñu fàttali nag ne PDS ñetti fan a ngi ni ñu leen di nañ seen ngantu bu tax ñu rewuñ que bëggoon nañ sensibilité yëpp teew leen di gërëm di leen sant ñi ñi daan seetaan di leen jox daje ci beneen diine ak jamono incha allah